ahansanil baaxi min asseytaani fi kulli majlisin wa fil awtaani xibaadati btadaxtu bismillahi wa huwa kafaaniya zawil malaahi wajjahtu kulla alhamdi wa shukuri lil maliki rahmani wa shakuri salli wa sallim wal tubaarik sarmada ala allati sammaytuhu muhammada wa alihi wa sahbihi wal anbiya waskurtihi l muqaddamat rabbiya wasrah biha sudura man taxallamu sharhan bihi laa taxtarihim sulamu barkeb Sëriñ Tuubaa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki réew mi ak bitim réew mboolem téléspectateur yi topp seen télévision bu mag bii di leeral TV rawatina seen jotaayu bopp bii di jotaayu xam-xam akuk taalibe ngeen ci ànd ak nun guddi àjjuma gu jot ci waxtu wi dellu seeti nanu di leen waxati asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. yéen ñi jàkkaarloog tele bi fii ci leeral TV waaye ak yéen ñi niy topp nag ci YouTube bi ak Facebook bi ci leeral TV yéen ñëpp ñoo ngi leen di nuyu. waaye noo ngi leen di jéggalu nag ci jotaay bii di weesu mu mel ni mel na ni jotuñu woon a agsi ngir ngànt téléspectateurs yëpp ñoo ngi leen koy jéggalu di ñaanal nag mboolem ñi nga xam ni ñoo dëkk fii ci tele bi ne di ci liggéey te di ci jiital akum nuyoo directeur sénéral di El Hadj Ibrahima Touré noo ngi koy ñaanal ak mboolem ñi nga xam ni ñoo koy jàppale ci liggéey bi waaye rawatina nag techniciens yi nga xam ni. ñooy nekk ci régime bi ba tax mbokk taalibe yi ak mbokk jullit yi mën a jàkkaarloog ñun waxtu wu jot ci waxtu wii ñoom Alioune Badara ñoom jëwriñ Daouda ak mboolem ña nga xam ne ñoo ci nekk ñëpp ñoo ngi leen di nuyu te di leen jox seen waay ñoo ngi ñaanal waa réew mi te di fi ñaan jàmm ñoo ngi ñaan jàmm yi ci àdduna si yëpp xam ngeen ni nag jotaayu xam-xam ak ak taalibe waxtu wi saa yu jotee maa ngi ciy ànd ak sunu mbokkum taalibe sunu mbokkum jullit Alhaaji Boubacar Konaté moom Serigne Béthio Thioune ngeen koy ànd ak seen mbokkum taalib yi Saliou Samb moom Serigne Béthio Thioune alaaj Boubacar noo ngi lay nuyu bu baax te di ñaana sunu suñu borom dolli la wér dolli la kattan dolli la tawféex yokk xam-xam bi te barkeel ko di la jox kon nga nuyoo téléspectateurs yi ñu doog a dugg si nag ci jotaay bi incha allah taala. auzu billahi mina shaytaani rajim. Alioune Badara bismillahi rahmaani rahim. youtube bi youtube bi. wa shukru li rabbil ala ashrafil mursalin salli ala sayyidina waliyina xudwatina xabibina shafiina wa alihi wa sallimi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu bu baax nuyu bu lislaam bi ñu bokk ñun ñëpp muy nuyu taxiyatan nag min hindillahi mubarakatan tayiba di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu di ñaanal réew mi jàmm di nuyu waa télé bi di nuyu bu baax euh, alaaj Birahim Touré ak mboolem seen ñi yëngu ci tele bi yëpp nag Serigne Saliou maa ngi lay fay ab nuyoo te di la ko delloo. di la ñaanal jàmm di santaat sunu borom subhaanahu wa taala ci tawféex gi ñu defal ba ñu delluwaat ci dellusiwaat fii ci plateau bi ci jotaay bi ànd koog téléspectateur yu jotaayu xam-xam te di leen ndokkeel bu baax a baax ci taxawaayu rafet wi ñu taxaw ci jotaay bi. maa ngi nuyu bu baax alaaji Abdou Maane Ndiaye mhm. di soppee jotaay bi wallaay ndeysaan waaye di nuyu bu baax nag sa xarit sa soppe wallaay euh, alaaji Pape wallaay wallaay ndeysaan tey damay suivre benn euh, émission bu mu def ci gàmmu gi wallaay Pape waaye tey laa ko suivre ma bég ci lool bëggoon naa ko waaye ma dolliwaat sopp ko wallaay ndeysaan ngir pas-pasam ci yonent bi ak détermination am wallaay ndeysaan ndax euh, Sénégal yàlla dafay def ay nit ñu baax mm-hmm. benn nit su dee wax di gindi ay nit ba ay nit di ca tuube di dugg ci lislaam mhm. kookee amul kenn koo xam ne am nga ab payam kon yàlla mi am pay ak képp kuy yëngu ci lu mel noona mhm. yàlla la suñu borom kàttanal te dëgëral la mhm. bi jaayi Mustafa al Karim noonu laay nuyoo ñëpp nag soppee jotaayoo xam-xam yëpp ñu ngi leen nuyu bu baax a baax jërëjëf Serigne Saliou maa ngi koy nuyu man itam. wallaay waaw maa ngi koy jottali nag maa ngi koy maa ngi lay jottali ay nuyoom moom moom it sop soppe la. wallaay dëgg la kuy topp jotaay bi la. dëgg la daa bëgg yónente bi sallallahu alayhi wa sallam. ba jeex ci dëgg la. moom benn xor la am mooy bëgg yónente bi. Mm-hmm. alaaji Modou Fall noonu la mel. dëgg la alaaji Mbacke si la alaaji Maodo Faye. dëgg la Maodo kon ñoom ñëpp ñoo ngi lay nuyu. waaye maa ngi lay jottali nuyu sunu sëriñ bi Sinaadi Ñas sëñ Adi ndeysaan waaw sëñ Adi ndeysaan moo ngi nuyoo saa su ne wallaay yal na ko yàlla yokku wér eh, tey tey ñaan it nag fu mu toll mi ngi nuy ñaanal wallaay moom daa bokk ci keno yi nga xam ne saa su ne wallaay wallaay képp ku bëgg diine danga leen di bëgg wallaay wallaay ba noppi di leen ñaanal wallaay wallaay ndax boo demee fii ci Dalifort wallaay liggéey bu rëy ba mu fay liggéey mm-hmm. di ko liggéeyal l'islam mm-hmm. loolu yi daa mat a wane. wallaay ndeysaan waaw ah, ndax yàlla dafa sàkk Sénégal ay jàmbaar. Mhm. yoo xam dañoo bëgg diine ba noppi taxawee ko taxawal ko. wallaahi moom mu doon ci kenn. kenn la ci ñoom. yàlla ko yàlla dolli wér. yàlla na ko yàlla dolli wér. Mhm. alaaj Boubacar noo ngi nuyu soppee jotaay bi yëpp nag. Mhm. mboolem ñi nga xam dañuy topp jotaay xam-xam akuk taalibe. Mamadou Dieye ma nga ca Mbacke ak mboolem waa Mbacke. Eh, tey jii rek ñu ngi may woo. di wax ni jotaay bi jotaay bii di weesu ñu ngi ko doon kii. ndeysaan ndax ñoom doon tàdd jotaay benn yoon dëgg la waaye waa États-Unis gépp nag maa ngi leen di nuyu te teg nuyoo ba nag ci loxol El Hadj Babacar Samb. ndeysaan Babacar nit ku baax moom itam ñoom nit ku baax. Mm-hmm. ñoom jotaay bi dañ koy topp direct ñi seenub liggéey tënk. Mm-hmm. bu noppee dañ koy topp ci YouTube bi mu taxaw taxawaay bu am solo. taxawaay bu am am solo Babacar Samb. kon mboolem ñiy topp jotaay xam-xam ak taalibe mboolem sunu soppe yi. Mm-hmm. ñi ci réew mi ak ñi ci bitim réew fàttewuñu kenn. ñi ca dëkk yu sore ya ak ñi ca dëkk yu jege ya dañoo mënta lim ñëpp rek waaye noonu xam ni ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di jox seen wàccuwaay te xam ni ñoom lañ fi toogal mm-hmm. alaaj Boubacar mel na ni nag bi nu jógee ci gàmm gi ak léegi ñoo ngi woon ci gis bu dëgg la doon ko waajale gàmm gi gis boobu it buñ fàtte ni fan ca tegoon sunu baaraam fàttewuñ ko mm-hmm. te respectateurs yi ñu ngi leen di fàttali ni fàttewuñ ko te mm-hmm. danañ ko yeggale mooy mm-hmm. sali xalal musammili waaye ci diggante bi gàmm dafay jaar dëgg la ñu doon waxtaan nag jeexiti gàmm ak i njariñam dëgg la jeexiti gàmm ak i njariñam nag feeñaloon na ni day wane ni juróomi ak jullit bu ne ameel na ko yonente bi wallaay ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam te gàmm dana la dimbali ci man koo xam ba koo sàmm ni ñëwoon ci àqu ji njëkk ja muy gëm yonente bi ak la ca aju hmm. ñëwoon ci àqu ñaareel ba muy topp yonente bi sallallahu alayhi ak la ca aju hmm. tey jii mu mel ni dañoo waroon a ñëw ci ñetteelu àq bi dëgg la te mooy julli ci yonente bi hmm. sallallahu alayhi wasallam ne ko yàlla warale ci bépp julli wallaay ndeysaan muy inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi ya ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu wa sallimu taslima taslima man yàlla ci jëm boppam ak samay malaayika sax na ndàkk ci julli ci yonente bi dëgg la yéen mboolem ñi gëm na gàll naa leen ngeen di julli ci moom tey sëlmal ci moom wallaay ndeysaan mel ne jullit bu ne yàlla gàll na la salaatu ala nabi donte benn yoon la ci sa dund muy tam bu am solo muy tam bu am am solo waaye nag jotaay bi xam nga téléspectateurs yi ñoo ko moom wallaay ndeysaan damay wax ni jotaay xam mm-hmm. amul présentateur déedéet amul conférencier déedéet amu ko maanaam euh, ñi ci régie bi sax bu leen neexee wallaay maanaam ñu tàbbi ci jotaay bi na jo bi saf xam-xam rek wallaay képp kum neex nga dugg ci ligne bi. wallaahi maanaam thème bi ñu tànn. Mhm. nga développé ci lu leer ñun ñëpp ñu noppi déglu la. loola soob waaye bu noppee daal. Mhm. képp ku doon seetaan rek na nga jariñu. na nga ci jariñu rek noonu rek la demee. loolu rek mooy dox yoonu jotaay bi. Mhm. tey nag te spectateurs yi ñoo tànnal seen bopp thème. dëgg la ñoo ne ñu kat ki ngeen ne lu am solo la te am njariñ waaye bëggoon na nag ngeen defal nu tey benn spécial Serigne Touba. wallaay ndeysaan. ndax bu ko defee nu yeesalaat sunu pas-pas. dolliwaat sunu cofeel ci moom waaye yeesalaat sunu taalibe bi jëm ci moom mhm. ngir mën a amaat vitesse bu nu songewaat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wallaay ndeysaan kon tey ji alaaji Boubacar mhm. damaa bëggoon nag ñu tànn waxtaani Serigne Touba dëgg la Serigne Touba nag daa bari ay wet wallaay jàngale nañ ko ba ah, tàyyi jàngale nañ ko ba tàyyi mhm. ndax lu yaatu nag moo mel noonu dëgg la ndax lu yaatu bari ay wet da koy yobbu dëgg la te wet goo jaar gu nekk ña ca nekk ak di ko dund ak di ko waxtaani mhm. boo moytu nga ne wet gii rek mooy mooy yëf ya waaw xam nga géej moo dem moo ni demee wallaahi ndeysaan ndax fi mu ne géej benn képp la nag wallaahi ndeysaan sëñ Saliou mhm. géej génn la génn géej la ndakaaru génn géej fam wallaahi géej googu moom ngay fekk ba ndar ba ndar waaye fi mu ne kii naa la maa ngi géeju Rufisque yi waaw kenn goog yoof kii ne bu yof bi daa ne kële naa la bu géejawaay wallaahi kii naa la maa ngi géeju fële na leen tëti bu ans ga daw am ku ne bu kayaar am nag bu kayaar kenn ku nekk nag danaan sa suñu géej gi nag mhm. vague yi nii lay daleeg wallaay di ko jox ay caractéristique mhm. te boo xoolee nag ci cosaan ñoom ñëpp ñoo bokk benn aslu rek benn aslu waaye feeñ waaye tefes yee bokkul rek tefes yee bokkul dëgg la fenn fa ne la fay xew mën naa bañ a xew fa ca des dëgg la géej nag li muy yaatu yaatu yaatu sëriñ bee ko ëpp mhm. ndax sëriñ bi day yónente bi da salli xalaa baxril buhóor wallaay ndeysaan lay sin xidaa shaafi sudur naa fi saqa badiri bu dóor dëgg la wa sax bihi wa sallimi moom mooy géeju géej moo tax léeg-léeg nga dégg Serigne Touba Ahmadou Bamba. waaw Ahmadou Bamba benn la ci wetu Serigne Touba yi. benn la ci ay wetam. dëgg la mooy ki nga xam ne am na fu mu ganee jamono. Mhm. am na fu faatoo. dëgg la am ko ko jàngal. Mhm. am fu mu dëkk. am mhm. ñum jur am ñu ko jur. nga xam ne Ahmadou Bamba mooy wetu nit ki. kon mooy wetu nit ki mooy bi Serigne Touba doonee la mu doon. bu doonee la mu doon. waaye nag yàlla yéene ko àddina. wallaay ndeysaan. mu wax ni raama rasulullahi min yi kaw nii xadiima foofu. wa abdallahi wallaay ndeysaan. nee na yent bi moo dem ba ci yàlla. sàkku ci yàlla man Ahmadou moo tax damay wax ni li fi indi ñëpp indiwu fi sëñ bi beneen mission doo ko indi déggal mu naan lawlal qur'aanu wa manaafi'ul waraa maa bittu fi dunya laylatan waahidatan ak lislaam ak jariñ mbindee fi fanaan génn guddi ci kaw suuf mission boobu nag nit ñi amuñu ko nit ñi amuñu ko nit ñi wa am waaw ah, wal insa illaa na ngeen di wàcc jaamu jariñu mm-hmm. sëñ bi dañu man nag lislaam ak alxuraan ak jariñ mbindee fi moo tax ma wàcc

bi mu wàccee ci mbuusum nit nag Ahmadou Bamba la tudd. moom la tudd mooy la facette humaine. Mhm. de Serigne Touba mooy mhm. Ahmadou Bamba. te mu doon wet goo xam ne wet gu ko mata la. wallaay ndeysaan. waaye noonu ma amee Ahmadou Bamba mel na ni am na wetam gu tudd Abdoulaye. Abdoulaye jaamukatu yàlla bi jaamukatu yàlla bi. nga xam ne day wax ne zëhër lii. Mhm. kaw nii Abdoulaye Abdoulaye. wallaahi xidlan lahu. wa xibban li wajhillahi. billahi ahbabtu rasulallahi. billahi alayhi xayru salawaatillahi. wallaahi. wallaay ndeysaan tayaqanu. bi annani lillahi. abdun xadim xadimun li rasulillahi nga xam ni foofu day jàngale jaam buy jaamu boromam mm-hmm. ahmadou bamba abdoulaye di lu rëy nag di lu rëy rëy rëy ndax ah, abdoulaye ak sëñ tuba mm-hmm. bokkul ak abdoulaye ak mbindeef yi mm-hmm. dégg nga mun naa xibaadaatu naa faaxat xibaadaati xayrina xibaadaati xayrina sama jaamu yàlla kawe na jaamu yàlla ak kudul man li tax loolu mooy man damaa am ñaari xeeti jaamu yàlla benn mooy ca ësaliya balaa dara xew balaa mbindeef di am jaamu woon naa yàlla nga xam ni boobu koor gi ngeen xam amul sàkk gun ko asaka amul sàkk gun ko aj màkka amagul sàkk gun ko ndax sàkk gunu màkka mhm. sëñ Tuubaa nee booba maa ngi doon jaamu yàlla mhm. yaa ngi dégg mhm. waaye ma wàccaat ci biir mbindeef yi di jaamu yàlla loolu mooy habatullah salaasa wa hawa wal yawmu abdullahi abdullahi jaamu naa yàlla ñaata téeméeri junni at ñetti ak benn mbindeef maa ngi doon jaamu tax mun naa xibaadaatun naa faaxa. sama jaamu yàlla kon nag kawe na ku dul mhm. wet googu dafa rëy gu rëy rëy rëy wet googu ci la jàngalee nan la ñuy jaamoo yàlla nga xam ni mu fonke jaamu yàlla mhm. ba jaamu yàlla tàmbalee xewe léegi mosunoo gis ko ko respecté noonu loolu mooy li wér li mu ko jaral li mosunoo gis ko mu ko jaral la te buñ ci duggoon di ko waxtaane nga xam ne Abdullahi rek doy na sëkk xam ne sin Tuubaa morom lu wér la Serigne Saliou mhm. mhm. xam ne xam ne wallaahi bi maa abada hmm. yurdihi billasi ka xidmati bada na faytu sannahu bi hmm. anni al xadim hmm. bi ma wana han mislihi kullu xadim kullu xadim wallaay ndeysaan nga xam ni foofa sëñ Tuubaa daal laxasaayu rek takk ndiggam wallaay ne ko sa jaam ñii nga xam ne da nga leen a yërëm ba tax nga wàcc ci ñoom yonent bi jox ko mission bu rëy bii nga ko jox yonent bi am jot gu toll ni ñëw ba ci yow mhm. sàkku man ahmadu ma wàcc ngir doon xaddim mhm. ba tax yow yàlla nga nangul ko ko ba tudde ma xaddimu rasul mhm. sab may ta nii xatxan bi xaddikal xaddim mission boobu nag dama ko nar a taxaw ba mat sëkk wallaahi nga xamante ni ca la naan man san na nii xayra mm-hmm. xaddi bil Moustapha. fa inna nii aqdibuhu bi Moustapha bi Moustapha muy lu mm-hmm. rëy nag. Mm-hmm. ndax ca la feeñale yoonu murit. wallaay ndeysaan. ca la texeele jaam ñi. wallaay ndeysaan. ca la defale lépp. lu lum nu bëggaloon. liggéeyal ci yonente bi ñaari xeetu liggéeyin. liggéey boo xam ne da koo siq ak yonente bi rek. keneen bokk ci. dëgg la te mooy wane li yonente bi doon. ak wane ak màggam wane sekkareem yi nga xam ku dul moom Sëñ Tuubaa mënu ko woon a wane. ndax moom la ko xamal. dëgg la xooloo mi wax irfaani bikallaahu xaadaha fa antal alayya li wàccillaahi jalla jalaaluhu lakkat dahar am daahun masa yaaka tarfahum mhm. nga xam ne boobu liggéey mooy wane li yónente bi doon mhm. moo tax ngay dégg ca nooru daari ni mu koy wax naan ko sama liggéey bii mhm. laay feeñale sa màgg gi xalal la si bi xidmati yi ubdii xulaa ubdii xulaa nga xam lan la si ka nga xam ni mhm. bi xidmati yi ci sama liggéey bii ubdii laay feeñale xolaa ak kaweem ak kaweem ndeysaan nga xam bi ko kaweem liggéey la na ko lu mu ko wanee mindee fi ndax moom la ko yàlla xamal wallaay ndeysaan geneen wet ga nag ko ko ci lislaam ak xeet wi liggéeyal ko ko ci eh, lislaam mooy liggéey boo xam ne buñ ci yemoon rek mhm. mulkulan xalil baaxil xadim baaxil xadim jaxal la nii as naa xadim mooy liggéey gi li man lahu fadlun liggéey bi tax mu woon ginnaaw njabootam ak wallaay dem ngir yëwanal sunu biir wallaay ndeysaan muy liggéey bu rëy wallaay nga xam ni moo waral màggal gi moo waral màggal loolu buñ ci taxawoon rek nga xam ni day na sëkk mu doy sëkk ndax résultat liggéey boobu moo indi likkun bikkun sarmadan wajhal masiri jaw fal faraalil wara mislal mahaari kon xaddi mu rasul rek wet googu wet gu yaatu ñu xam ne sëñ tubaa moo tax sëñ tubaa maanaam mën koo waxtaane nii sax nii rek ñëw rek man loolu lu ma lu ma jaaxal dama ko tëlale su ma gisee ku koy def dama ciy jaaxle nu mu ko mënee moom nu mu ko mënee waaw ndax lenn loo jël ci sëñ bi rek wallaahi da gis ni loolu doy doy na tem daal day doon day tey tem sëkk xam ma hmm. ñetti bu bëgg waaye bi mu jógee ci xaddim rasul am na wetam ko tudd ahmadou cey ahmadou waaw ah, ahmadou waaw ah, ahmadou day sëñ Saliou day day wet goo xam ni wet gu réyati la wet gu wet la goo xam ni hmm, hmm. mooy bi nga xam ni sëñ bi moom maqaamam ahmadiya lay waxe ahmadiya mooy jëmmi yon leeruk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leer gi nga xam ne moo tax yonent bi di yonent bi mm-hmm. nga xam naan lil Mustafa nawaytu maa yu jaddidu wa innii ahmadu innii ahmadu nga xam ne mooy leer gi tax yonent bi di yonent bi. di yonent bi mooy xaqiqaam. Mhm. nga xam ne loolu la loolu la sëñ bi jokkar bi. Mhm. ne maa ko doon arfin bi arfin. Mhm. taxawee maqaama moomu di ci wax. nga xam ne foofa ku ñuy liggéeyal ak ku koy liggéeyal amatu fa. déedéet mooy li ñuy wax xaddiim ak maqdoom. déedéet waaye foofa kenn rek a fa ne. moo tax foofu bu waxee da nga da nga naan sëñ bee wax wala yonent bee wax. sayyaranillaahu. fawxa jamiihil anbiyaa. wal mursaliin wal mursaliin. yàlla yëkkati na ma. ci kanamu képp ku yor nubuwa. ak képp ku mu yónni. da nga naan waaw fu may def yonent bi. te yëgoo ni booba sëñ baa ngi wax waxee ci làmmiñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amruka jaawasa amrul anbiyaa wal mursalin mhm. nga xam ne loolu la waxoon ne yàllaa ko ko wax sa mbir na mbirum lanbiyaa yi ak mursalin dëgg la léeg-léeg mu ne kataballahu mm-hmm. la te ku ne xam na ne kanamu mbindeef yi rasulillahi la ci yàlla jiital la ndax moom moo nekk ki jiitu ci kanamu mbindeef yi mm-hmm. kon jom mën a jooju ahmadu la ahmadooy boo fa boo fa déggiwul sëñ a waxtaane ndax mm-hmm. léeg-léeg dana loo xam da nga naan fu may def yonent bi kon naa bar bàyyi bayit bi wala jumla ji fekk booba xam xamoon ni Ahmadou ci boppam mooy wax. la ko mooy ñu ne day jéem a diir mbagg yónente bi. dëgg la wala boog ñoom dañoo bëgg a jël sëñ bi teg ci kaw yónente bi. fekk ñàkk a dégg sëñ bee tax. fekk ñàkk ko dégg wet yi nag ku ko xàmmeewul. Hmm. mën ngaa waxtaane sëñ Tuubaa ci baas ba noppi bëggal junni murit mm-hmm. rey fukk rey ñaar ñaar téeméeri euh, rey fukki junniy jullit mm-hmm. yoo xam duñ ay murit problème ñoom problème l'islam la ñu am dëgg la ñaa kii li mu wax ndax dëppoo na ak l'islam dëgg la ndax dëppoo na ak alxuraan sunna wallaay nekk ñàkk dégg sëriñ bi moo ko waral mm-hmm. waaye weddi it ëpp na lool ndax boo weesoo ahmadou am na wetam gu nuy wooyee borom tubaa borom tubaa waaw sëriñ bi moom Touba. wallaay ndeysaan borom Touba la xam nga sëñ Touba Ahmadou la wàcce. Mm-hmm. Ahmadou Bamba. Ahmadou Bamba bu njëkkee ba yàgg naan ko borom Touba. borom Touba ak sëriñ Touba. Mm-hmm. loolu xam nga sëñ Saliou wet la. wet la sëriñ ba moom Touba wala ka nga xam ne moom moom Touba. moom moom Touba comme ni ñuy waxee sëriñ Louga ak mm-hmm. sëriñ Thiès. nga xam ne dañ koy dàkkanteel ak dëkkam ba. wallaay waaye am na geneen wetam goo xam day tudd jaarullaahi. jaarullaahi mooy dëkkaaleeb yàlla bi. wallaay ndeysaan li bihil muluk wallaay nga xam ne foofa yi dafay wax yoo xam ne diggam ak kam dëkkal la dëgg la ak ya cay xew foofa yi di ak wet waaye geneen wet ga ca gën a kawe nag mooy machiatullah mhm. mooy Serigne Touba mi taxaw ci coobare yàlla dëgg la nga xam ne yàlla moo utilisé jëmmi sëriñ Touba ji ngir di ci feeñal mhm. coobareem ak kattanam ak sañ-sañam sixtu la si cha al ilahu wal ilah dëgg la yasa uma chixtu bila durin wala mhm. lu mel ni akramte ni ikrama man maa sha fahal wa kullu ma arabtuhu min kan fahal kon wet yi bari na kon Sëñ Tuubaa min bëgg a mhm. day koo xam ne ku bari ay wet la yu nga ko mën a jaare dëgg la te wet goo ci tegoon subaaraam gu ne mu day sëkk aw waxtaan wane ci ne sëriñ bi mësta am moroom te du ko am ndax yàllaa ko dogal dëgg la waaye li ma tànn noonu li nga xam ne téléspectateur ñoo ko tànn nee nañ boobaak léegi dafa lëgul leen ko waaw nee nañ bëgg tey nu waxtaane borom Touba wetu borom Touba wetu borom Touba muy wet gu ko mate wet gu ko mate wallaay ndeysaan sëriñ bi moom Touba mm-hmm. nee nañ nañ bàyyee di Ahmadou <laughs> bàyyee di Ahmadou Bamba bàyyee di Abdoulaye ba ci kanam Xadim mm-hmm. Rasul noonu ak mm-hmm. Ahmadou Jaarullaay Masiatullah donte bu ci ne bëgg nañ ko ca jaar waaye neen tey daal guddi àjjuma ak tey ji bëggoon nañ daal ñu ubbil leen borom Touba ndeysaan kon Boubacar tey waxtaane mooy Serigne Touba borom Touba wet goo gi. jërëjëf Serigne Saliou ci thème bu am solo boobu nga xam ne moom la téléspectateur yi tànn. Mhm. mu doon thème boo xam ni nag doy na njariñ àddina ak àllaaxira mhm. képp ku ci xamee sëñ Tuubaa mu doy la tey ak ëllëg képp ku ci dolli ko it ab xam-xam maanaam dana defaraat sa taalube ndax taalube bi lu muy gën a xam màggug sëriñ bi di gën a xam nu mu koy toppee te lu mu ko gën a topp gën a jariñu ci sëriñ bi ku gën a jariñu ci sëriñ bi nag ci yonent bi nga gën a jariñu ku gën a jariñu ci yonent bi nag da ngaa baaxal sa diggante ak yàlla wallaay ndeysaan kon tem la boo xam daa di ngir defar njullituk njullit bi wallaahi waaye mu ak muritug murit bi wallaahi muy tam nag Euh, borom Touba. borom Touba dañ ne Serigne Touba. Mhm. kon li es ci baat bi mooy jëmmi Touba. dañ ko kinaayaal ci Touba. waa lan moo tax sëñ Touba ñu koy askanale borom Touba. borom Touba loolu nag day lu rëy. Mhm. ndax bu ne Touba saxel day dem fii ci Bawol. Mhm. gannaaw njaareem. ak ngaabu ak ngaabu Mbakke. nga daal di jàllal Touba ne ëgg si nga Touba. ñu ne la lu ko def Touba ñu ne ah. découpage administratif la. ñu tudde dëkk bi tuubaa waaye ginnaaw saayir si nag. dafa am leneen lu rëy rëy rëy ca nekk mooy jëmmi Touba ci boppam. Mhm. day mbirum yàlla. day mbirum yàlla day mbirum yàlla. Mhm. maanaam Touba moo mag dëkk bii. lay tax Touba di Touba. Mhm. la tax la tax ñu naan Touba. loolu moo mag addina. si nu nekk nii. ndax day domaine nu yàlla. spiritualité la maanaam tudd na baat boo xam ni. sunu borom nee na. ubbilu ma ci kenn bunt ubbilu ma ci kenn porox ndoll day mhm. sama mbir moom Touba moom Touba mhm. jëmmi Touba mhm. loolu nag suñu borom nee na su ma leen ko bëggee misaal ci alxuraan alxuraanul karim laa leen di misaal yàlla daa daa moom Touba moom moomeel goo xam ne benn yoon la baat bi ñëw ci alxuraan benn yoon benn yoon suñu dani yaa ayyuhal lazina amanu inna allazina amanu wa amilu salihaati allazina amanu wa amilu salihaati tuuba lahum wa xusnul maab daane gaa yi nga xam ne dañoo gëm allazina amanu wa amilu salihaati tey jëf jëf yu sell yi ñu ne waaw ñooñu loo leen dencal yàlla ne tuuba lahum tuuba ñeel na leen wa xusnul maab ak mujjug rafet bara xam yëpp dëppoo ci ne kon jëmmi tuuba maanaam day fiiri ajjana mooy ak texe ndax suñ borom dafa waxoon ni innal lasina amanu wa amilu salihati ulaika hum xayrul bariyati jazaohum inda rabbihim jannatu haddnin tajri min taxtiha lanhaaru xaalidina fiha abadan radiallahu anhum wa radwanu zalika liman xasiya rabba mhm. foofu yàlla dani ñi gëm mhm. tey jëf-jëf yu sell dencal naa leen aljanna waxaat feneen ni wa bashiril muminina mhm. wa bashiril lazina amanu wa hamilu saalihaati mhm. anna lahum jannatin tajri jannatin tajri min tahtiha al-anhar yàlla mi ngi yëgal mhm. ni ñi gëm tey jëf-jëf yu baax yi mhm. danaa leen bégal loo leen di bégale mu ne maa leen di bégale aljanna kon boo jëlee aaya yi yàllay wax yépp ne ñi gëm tey jëf-jëf yu baax dama leen di bégale àjjana aaya bee mu ne ñi gëm tey jëf-jëf yu sell yi dama leen di bégale Touba. baraam yëpp dëppoo kon ne Touba maanaam day firi àjjana. mooy aljannatu kon Touba prix mu njëkk mi mu am. Mhm. mooy Touba day firi àjjana. ak texe ak texe mooy jëmmi ak texe. Mhm. loolu it sëñ xam nga ne bari na addis yu ñëw di ko leeral. Mhm. xam nga yonent bi wax na ba tàyyi. ne Touba li li saabixiina. ila zillillaahi. nee na Touba ñeel na ñi nga xam ni. ñoo gën a jege ëllëg keroog yàlla gi ak texe ñeel na leen kon Touba ba ba léegi foofu it day firi aljana bari na ci addis yu ñëw sax di indi baatu Touba Euh, te la muy firi mooy day taxaw taxawaayu taxe te li saabixiina moom mooy ñu gën a xëj gi ndax wa saabixoona saabixoona ulaaika al muqarrabuuna fi jannaati nahim sullatun min al awwalin wa qalilun min al aaxirin ñooñu alxuraan moo saxal ni ñooñu moom foofee mm-hmm. lañ jëm mm-hmm. kon ca la borom xam ne dëppoo ne kon jëmmi Touba pirim mm-hmm. yi ci njëkk daal mooy jëmmi tuubaa day firi ajjana ajjana mooy ak texe yonent bi firee ko noonu sallallahu alayhi wa sallam waaye Touba it amaat beneen piri boo xam ni yonent bi moo nu ko jox alxuraan it leeralal ñu ko kon xam benn benn yoon la baat bi ñëw. Mhm. muy jëmmi Touba. Mhm. waaye junjaat na ko ci beneen aaya. ci ay maxna ci ay maxna. Mhm. mooy boo demee ci surtu Ibrahima. sun borom day wax ne alam tara kayfa. daraballaahu masalan. kalimatan tayyibatan. ka shajaratin tayyibatin. asluha saabitun. wa faruha fi samaa'i. tuuti ukulaha. kulla xiinin. bi izni rabbiha bi izni rabbiha ba aaya ba jeex. sun borom dañuy waaw ma misaal leen. alam tara kayfa. daraballaahu masalan kalimatan tayyibatan. ma misaal leen kàllaama gu teey. gu tedd gu sell gu nit di tudd ci làmmiñam mhm. kàllaama googu jumhur gépp maase nan ni mhm. mooy baatu laa ilaha illallah mhm. nga xam ni kuy dugg ci lislaam mënta ñàkk nga wax ko ku ko gëm dugg ci lislaam ku ko weddi génn lislaam amul nit lu muy tudd ci làmmiñam lu féete kaw laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ku mujj ci saw làmmiñ nga taxe amul werante moo tax bu nit tollee sax ci sukuraat borom bi dañuy dañuy bëgg boo toogee ci wetam mhm. yow ngay tudd laa ilaha illallah nga di ko tudd mhm. ngir moom mu mën la caa toppandoo mu mujj ci aw làmmiñam ngir mhm. yàlla ubbil ko buntu àjjana yi kon loolu mooy kalimatan tayyibatan kon kaddu gu toll noonu kaddu gu rëy la kaddu gu la yàlla nee dama leen koy misaal ñu ne ko waaw noo ñu koy misaale mu ne maa ngi leen koy misaale tu euh, euh, ka shajaratin tayyibatin ci garab gu sell gu mag boo xamante ni tuuti ukulaha kulla xiinin garab yi ngeen am day meññ par saison par période mm-hmm. ñi noor la xam nga fi mu ne gerte day xaw a bari mm-hmm. xaal ji noonu tubaarkàlla mm-hmm. léeg-léeg ñu ne dugub am na léeg-léeg ñu ne mboq am na yàlla ne garab googu nag du loolu garab googu moom kul la xiinin mooy moom day meññee day meññ waaw ñu ne garab gu rëy noonu ba yàlla di ko misaale jëmmi kàllaama gu teey googu mais asluha saabitun asluha saabitun cosaan la dafa sax ci suuf cosaan la ci suuf la sax mhm. maanaam du loo xam ni day màgg aka ñu koy arrosé muy dee yàlla ne garab la goo xam ni mhm. dama cee def sama kattan wa farxuha fi sama maanaam garab ga daa daa bëtt asamaan yi mhm. maanaam moom daa daa tënkuwul ci espace yi ak temps yi mhm. ci kattanu sunu borom la tënku mhm. yaa ndax yaa ngi dégg te nag garab baaxoo saxe sax bokkut ak nam saxe moom déedéet ndax moom daa mel ni eh, ay reenam biir asamaan la jëm waaw loolu <laughs> loolu boo demee ci circule jawahir ah, da da ko dégg da nga ko ah, gis foofu sëriñ bi ko fa leeral waaye sëñ Saliou borom xam yëpp daan ne ah garab gi yàllay wax nag mooy garab mooy sajaratu Touba garab googa lay junj. garab googa lay junj. Mhm. kon Touba ñëw na benn yoon. ci mhm. baat. Mhm. daal di ñëw benn yoon ci mahna ci alxuraan. léegi aaya boobu nag yonent bi moo moo ñu ci dimbali. daa delluwaat daan ne bi Touba piri àjjana ba noppi. ci baat bi étymologiquement. Touba nag dafa am lu muy symboliser. lan lay symboliser mu ne Touba shajaratum fil janna. Touba est un du du paradis. daan ne harashaha Allahu nag bi yadihi ca nga xam ni sax sëñ Touba. su wàccoon ci kaw suuf jot a dem ci géej gi jot a bind jës bu bindul mu bu mu xaddimaat jot a ñëw sëñ bi jotul dem fenn ànd toog tubaab bi deful dara daa ñëw rek samp dëkkam bii di tubaa xëy na war kenn gisutu ko hmm. ba yowmal xiyaam def na lu ko kenn dul dabe wallaay ndeysaan ndax jëmmi borom Touba ba hmm. àddina sosoo ak léegi amul kun ko ko mës a woowee ku dul daam de moom rek moom moom Touba loolu nag diggam ak yàlla moo tax hmm. ndax Touba day day du domaine u mbindéef domaine yàlla la day domaine yàlla. Mhm. mbindeef amu ci yool. Mhm. léegi yent bi ne jëmmi Touba googu. Mhm. ñuy woowee Sëñ Touba ne mooy borom Touba laa leen bëgg a wax tuuti. ñu ne ko loñ ciy wax moo ne Touba shajaratun fil janna. Touba est un arbre paradis. garab la ku nekk àjjana. ñu ne ko waaw nu garab ya demee mu ne arshaha Allahu nag bi yadihi garab la goo xam ni xam nga ku ko jëmbat ñu ne mu ne yàlla. saal sëñ saal xam nga ne garab gu yàlla jëmbat. loolu doy na Mm-hmm. ñu ne kon nu ko yàlla jëmbate mu ne bi yadihi ci loxo boppam ya la ko yàlla jëmbate mm-hmm. yàlla nag du lépp lay defe ay loxoom mm-hmm. loxo yàlla du lépp la ci yàlla def suñ borom lépp da leen a bind ci kun fayakun mbindeef yëpp lépp ci kun da binde ba mu des ñett ñett rek a génn kun ñett rek a génn kun moom ci loxoom la leen defaree yoo xam ne yàlla da defar ci loxoom bi si njëkk mooy. lawhul mahfuz yàlla nga ko bindee ci loxo boppam. wallaay ndeysaan ñaareel ba mooy. maam mhm. Adama Seydina Adama. yàlla nga ko bind ci loxo boppam. Mhm. Mhm. ñetteel ba mooy. garabug Touba garabug Touba. yàlla nga ko defee ci loxo boppam. lu dul ñett yii yàlla ci kun fayakun la sàkk. moo tax yàlla sax bu doon nit la nee naa ko fan ay loxom la waaye fan gi it xam lim ci denc moo tax. doo dégg buy tagg loxo yi tabaarakal lazi bi yadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir wallahi ma mu ngi tudd sellu ki nga xam ni bi yadihi ci ay loxoom almulku mhm. nguur ci la ne mhm. wa huwa ala kulli shay'in qadir wallahi dégg nga allahumma malikal mulki mhm. man tasha wa tanzihul mulka mi man tasha wa man tasha wa tuzillu man bi yadika ka bi yadika alxayru yàlla ne alxayru ngëneel yi di gis nii yëpp li muy rëy rëy la daje mooy ci samay loxo kon gis nga ni yàlla bu doon nit la ku fan yi loxoom la kon man bi yadihi malakuutu kulli shay'in wallaay ndeysaan wa ilayhi turja'un man bi kulli shay'in loolu mooy lan sëñ Saliou moomee la lépp lu mhm. man bi yadihi malakuutu kulli fa subhanallahi wa ilayhi turja'un wa ilayhi mhm. nga xam ni kon suñu borom day sabbal ki nga xam ne loxoom bi ci lépp ci la nekk mhm. xoola iblis bi mu weddee aadama yàlla ne ko waaye iblis mooy yow xalaat da ngay xaru mm-hmm. yow mënoon ngaa weddi lépp sax waaye weddi loo xam ni man yàlla maa ko sàkk non seulement waaye mm-hmm. maa ko sàkk ci samay loxo bopp mm-hmm. vraiment yaa problème yaa iblisu a an tas joda li maa xalaxtu bi yaday ya astakbarta an am kunta minal xaalin waaw yow an tas joda li maa noo mën a weddee aadama mii nga xam ne non seulement maa ko sàkk nag waaye bi yaday ya nag ci sama loxo bopp laa ko sàkki kon yàlla ku fonki loxoom la yàlla yonent bi ne arasaha allaahu nag bi yadihi yàllaa ngi sàkk jëmbate garabu Touba bi yadihi ci ay loxoom ci loxo boppam ba ñu ne ko fa la yam mu ne déedéet wa nafaxa fiha min ruuxihi nee na yàllaa ngi ëf ci garabu Touba ak ruuxam moom sunu borom su yonent bi ne tunbitul xuliya wa chimaaru mut euh, mutahaddilatun yonent bi nee na meññee fi garabi Touba ci jëmmi boppam nee na meññeef yi moom la yàllay berndee waa ajjana ëllëg. Mhm. sun yonent bi ne. xobi garabi Touba. Mm-hmm. nee na moom la yàlla yàllay wodde waa àjjana buñ bëggee sañse fi mu ne àjjana buñ bëggee sañse mm-hmm. yéen bi na yàlla mi ngi leen di sañseele ci xobi garabi Touba. maanaam jas neer amu fa déedéet ak perkaal ak pirxa ay ay yii xew léegi ah. ak xew ak xew yi waaw yàlla yéen yooyu amul àjjana ci xobi garabi Touba rek ak di dem ci gaañi ñu lay ñawal ak yu demee noonu ah. yéen bi nee na yooyu amul kon boo moytul amul tëyër déedéet sur mesure la la xobi garabi Touba di daggal wallaay kon xam nga ni Touba du domaine min def déedéet domaine baa ngi jàngal ci ci bi ne mm. garab yëpp ni ñuy mhm. saxee. bokk na garabu Touba ni ñuy saxee. bokk na ni ñuy ñu ne ko lu tax. Mhm. mu ne benn yent bi nee na. Mhm. Touba shajaratun fil janna beneen addis bu bokkul ak bii may wax. Touba shajaratun fil janna. Touba est un arbre du paradis. garab la ci biir àjjana. waaye masiratu maa ati haamin. nee na son étendue équivaut à une marche de cent ans. nee na doxu garabu Touba boo bëggoon a jël jël jël cat ba cat nga dox ko. yaatuwaay ba. toll na ni doxu téeméeri at. xam nga loolu du garab yi nag. déedéet loolu du garab bu mindeef. ah nga xam da ngay dox téeméeri at yow. Mhm. door a jeexal ker gi. pour ker gi jeex pour ker gi jeex. ca at ya foofa ndax at yi fii day xewi. déedéet bokk na boobu at ya foofa la. Mhm. te at ya benn fan junni at la fii. Ah, kon loolu ñaata téeméeri junni at la. mën a wàññi laa bi ka wa inna yawman hinda rabbika. Mhm. ka tax sanatin mimma taxudduun benn fan foofa. nee na junni at la fii ngeen di wàññee yéen. kon bu fekkee benn fan foofa junni at la fii. garab ga dox ba di téeméeri at foofa. kon téeméeri at yooyu boo moytuwut euh, wàññi ko loolu suñ saaliw amul kenn ku ko mën a wàññi <laughs> yaakaaruma ko léegi nag kon gis nga doxu garabu Tuubaa gis nga ker gi ni mu toll téeméeri at nga koy dox léegi nag mm-hmm. keroog garab gi noonu mu yaatoo mm-hmm. àjjana foofu mën a taxaw mm-hmm. yaa ngi keroo keroog garabu Tuubaa maam ca la mbaarale waa àjjana ca la mbaarale waa yi nun toll àjjana ju ci nekk keroog garabu Tuubaa moo la tiim Mm-hmm. waaye ñaareel ba it mooy garabu tubaab bokkul ak ni mu saxee bokkul ak ni garab yii yëpp saxee mm-hmm. mooy reen yaa nga jàpp ci juróom-ñaari asamaan ci kanamu yàlla ca kanamu yàlla mm-hmm. muy wàcc di tiim àjjana yi di leen keral di leen baaral te benn àjjana bu ne moo ëpp addina juróom-ñaari asamaan ak suuf bàyyi bu saaxu nee na àddina ku fa am ay hectare xet ko day xat ci yow ndax saa bi ila maxfiratin min rabbikum <laughs> uh-huh. wa jannatin lu mu ko teg harduha samawaatu wal ardu muhiddat nga xam ne wa jannatin benn àjjana uh-huh. harduha yaatuwaay ba uh-huh. asamawaatu wal ardu mooy nga boole juróom-ñaari asamaan ak juróom-ñaari suuf benn benn àjjana yàlla yent bi nee na nag li àjjana yee yaatu yaatu yaatu yaatu yaatu mm-hmm. nee na àjjana yëpp garabu tubaa moo leen keral sëñ Saliou borom tubaa bi yëfu gone déedéet ah moom Touba moom yombul. waaw borom tubaa ci nga xam ni sax suñ tubaa kenn xamul lu mu doon. te duñ ko xamit déedéet kenn du ko xam. Mm-hmm. ba yombal xëyam. wallaay ndeysaan ndax jëmmi borom tubaa rek tur wu ne. Mm-hmm. maanaam day wuyu borom day wuyu borom. Mm-hmm. boo gisee ñu koy wax borom tubaa la ko ko yàlla le moo tax. waaye loola du ab dëkk nii rek de secret la. sekkere la boo gisee sekkere boobu nag ñëw ba Sénégal mhm. loolu diggante sëñ Touba ak yàlla la moo taxoon mu bëggal boppam Touba wallaay nde muy dëkk bu mu bëgg teg ko fam ko teg wallaay ndeysaan ah, yëmalewut ku fa ne ak ku fa newul déedéet loolu day wane darajay Touba déedéet mhm. déedéet mhm. wax ca wax yu bëri nag boo gisee sëñ Touba naan wa maskanan li dafi kulli dayri wallaahi ak wa maskanan li jalbi kulli xayri mhm. mooy dëkk la boo xam ne day ñod di ay ngëneel mhm. waaye di jañ ay lor mhm. <laughs> loola mbirum yàlla ma ca biir a tax ak ñaan gam ñaanee mook turandoo ba ñoo yem wallaay ndeysaan waaw mooy ismiha nga xam ne foofu la fi jëm waaye sëñ Saliou boo déggee sëñ bi naa waj xal xar yi mën xariman amina mhm. wa kum bi xifzihi kaf ilan daamina nga xam ne danaan ko nay dëkk bopp day am sécurité mhm. am kaaraange nga xam ne mhm. loolu day baatin loolu la ko waral mooy secret bi Touba làmboo tax kon gis nga ni Touba du domaine u mbindéef garab gaa nga ci ren yaa nga jàppe ci juróom-ñaari asamaan mu wàcc nag di tiim àjjana yi nag di leen keral nag àjjana nag fi mu toll nii amul dem ca tëyër ba di jël ay mesures rek yu demee noonu yéen ne Touba shajaratun siyaabu ahlil jannati mm-hmm. taxruju min akmaamiha mm-hmm. yérey waa àjjana taxruju min akmaamiha mm-hmm. nee na ma nga ma ngay jóge ca xob yaak ca meññeefi garabi àjjana ya waaye garabi Tuubaa bu yàlla bëggee soppi njulu waa àjjana mooy bëgg tey nag àjjana lekk lu gën neex Eh, maam xéewal gi gën a yokk waaw daal di mhm. soppi njëlli nag ne tey moom damaa fas yéenee berne mhm. yàlla mu jug rek ngir tey ne damaa fas yéenee berne rawatina fu neexee woon ne ajjana fu neexee ne ajjana mhm. nga xam ne jàngal nga ñu ne ajjana nag moom ma dàq yàlla bugg fa yii yëpp nag yooyu am fa yaa ñu jàngal ne ajjana sax ndeysaan ku tiim boolu laax di ko lekk bu fekkoon boolu laax bi juróomi kudd la kudd bu ne day am guwam spécialement loolu nu mu demee sëñ Saliou boo tibbee tibb bu njëkk bi waaw bi mu yor guub ñaareel bi day yor bopp bu njëkk bi ak bosu boppam. maanaam fi mu ne waa loolu na xanaa cin yi dañoo bokkul. wala nu mu demee noonu. kay bernde moo bokkut ak kadaan bernde. Ah. fii àddina nit ñi ñooy berndente. wallaay ndeysaan fee nag maam yàlla. waaw moo fas yéene berndeel jàmm. <laughs> maam yàlla men na yàlla men na moo tax moom mbiram daa spécial. <laughs> waaw nga dëgg de. ndax yàlla daraam daa xëyul ci biir yàlla da ay xeet la kenn du xam. moom rek ko mën wallaay ndeysaan laa ma ne fii ah, laxwan. bépp coow bi indi stress sax amul àjjana. salaaman salaamaa rek. jàmm rek kon ak réew mi àddina xanaa du am grève kon. déedéet nee na liy waral grève hmm. kenn dugg àjjana ñu opéré la génn ko wa nasanaa maa fi sudurihim min xillin ixwaana alaa sururin mutaqaabiliin mais amig rek ay merak yëpp lay génne loolu du amul àjjana xam naa looloo tax nit ñi sax di rafet mhm. ndax xanaa xamoo nit bu dul mer day rafet waaw day day liy merloo nit moo koy ñaawloo. waaw mu ngoog mu ngoog. ndax ca xol ba la ne. te day day day naqaril addina nag ak mer. mer moo baaxut. lañ ci yàlla ku mer boppam diggam ak boppam ma njëkk a naqari. Hmm. moo tax jaxasoo laa nga yëg naqar wax. te li ci naqari li ci naqari yëpp nag mooy ki nga mere du ko yëg. déedéet euh, wax naa ku ko mere nag ko wax. Cheikh Ahmad Tidiane. waaw hmm. ah, ndax nee na mere ku ko yëgut daa métti. Ah. <laughs> te nee na moom bu ko yëgee sax man laa dabu. yàlla ju ko yàlla lewal <laughs> kon gis nga ni. kon gis nga ne àjjana noonu la demee mhm. yàlla nag ne tey ma fas yéene soppi njël koo àjjana mhm. yéen bi nee ne njël la ñoo ngi koy ñoo ngi koy soppee ci keroog euh, ci euh, meññee fi garab yi garab yi Touba kon sëñ Saliou xam nga ni Touba kon lu rëy la dara mel ni Touba lan moo tax nag Touba am kattan googu mhm. yonent bi xam xamal ñu ni xarasahallaahu bi yadihi yàlla moo ko jëmbat ci loxo boppam bi mu noppee nag ëf ci ak ruuxam moom suñu borom te loxo boppam ba dana firi kattanam kattanam al quwwatu dëgg la mooy niñ li nga xam ne noonu la ko tafsirkat yi di mhm. ñoom ñi nga xam ne duñ bëgg a jëmmal yàlla ci jëmm waaw ndax buñ ne yeddu dañuy jàpp ne loxo mbindeef yi fekk di réere yàlla loolu xam nga la ko moo mooy yeddullaahi gi yàlla wax wallaay loxob yàlla moo nekk ci seen kaw mhm. te booba xam na ne loxob yonent bee nekk ci kaw loxo gaa yi mhm. ñoom nag ñu bëgg koo tafsir daan kon quwatu quwatu la ya gën a rëy nag mu a ndax bu dee kattanu yàlla gépp mhm. loxo bi da koy misaal wallaay ah, bu ko defee kon dañuy xam ne kon loxo yent bi lu rëy la rek inna allaha ala kulli seen qadir <laughs> wallaay ndeysaan kon ga dëgg la garab ga dootu doon garab mi def dëgg la mhm. leer googii nag mhm. la sëñ Tuubaa seen ci àjjana ciy daam moo tax luñ ko sant doyul waaw mat naa sant nag daan na yàlla leer googu du di Tuubaa leer googu laa bëgg nga defal ma ko ci àddina si. andil ma ko fi muy dëkk bopp day doon dëkkub naataange. nañ ma ko fi transféré waaye muy dëkk bopp day ñoddi ay njariñ di jañ ay lor. Mm-hmm. waaye muy dëkk buy texeel. muy dëkk boo xam ne it maanaam day defar doomi aadama jaww ji rek day defar doomi aadama. Mm-hmm. daat ne suñu borom. wajhal ilaahi yi tuubaa abad mm-hmm. misla ismiha bi jaay xayri man abad sëñ Tuubaa dem na ba yàlla sax xamal ko ni loola nangul naa la ko. Mhm. waaye muy wër fukk ko yàlla defal. na nga ko def mu doon sam dëkkuwaay faw faw waaye na nga ko doon def mu doon it ni ki turandoom ba. muy misaal turandoo ba. ndax jaxala la ku ne xam na ni day nasab ñaari mafool. Mhm. kon maska nii ak euh, euh, misla ismiha. Mhm. ñaari yëpp day da koy jamtalu. kon dana taxaw ñaari position yëpp. wallaay ndeysaan man daal mi nga xam ne fu ma dëkk mu gën. fii ne doon sama dëkkuwaay. dëgg la waaye Touba gii. ak Touba googa ma séenoon. Hmm. bu nu am wute. bu nu am wute ñoom ñaar. Hmm. nga xam ne loolu day lu rëy Serigne Saliou. bii na symbolisé bee. bii benn la doon. baatin bee na lii doon saaxiram. waaw bii na bii nay saaxiram. wallaay moo ñu lay misaal te mënoo koo gis. Hmm. bii bii mooy doon saaxiram. wallaay kon muy lu rëy. ndax bu ñu yemoon rek ci Serigne Touba borom Touba kon da nga xam ne tudd nañ lu rëy rëy rëy. xanaa kon looloo tax jëmmi Touba ba mu koy sanc ca àll ba. muy jékki-jékki rek di wër su mu borom ko côté bee la leer ga fee la. waaw mu naan fee ma fenkoon ni ñu wutee dëkk rek la ko wutee. waaw ñu jox la ay hectare nga daal di fàq garab yi daal di kii def. de nag gars yi kaa leen sañ dëkk bi. na dëkk boo xam ne da ngay wër leer da koy ah, wër tey fii na loo xam ne sax ndeysaan ana bés mu mu mu mu am fu mu taxawoon doon fa julli ba yàgg. Mhm. daal di am ku mu dajal ne ko fa fa ma romboon may julli fan la. Mhm. maa ngir taktaloo ko. Mhm. ngir xam yëf yi ndekete dëgg dëgg dëgg dëgg. fan la ko yàlla rofal. ndeysaan am na bis sax nettali nañ ci xista bu am solo mhm. ci tuuru Tuubaa gu njëkk diggam ak Cheikh Ibra Fall mhm. Cheikh Ibra Fall daa yàgg murite mhm. Sëñ Tuubaa di ko ci nattu jekk-jekk foofu ci àll bi rek mun ko waaw Ibra Fall fii ne nii ma la sopp woon ab rab aw rab looy wax mun ko mbàkk nag ma dimbilee ba ba la sooboon bul ma def rab boo xam ne ku ko gis daw hmm. boole ma ci yi nga xam ne ku leen gis daw ku leen gis rek daw <laughs> waaw <laughs> ndeysaan yi ngi waaw xam ne ba ñu tuddoon rabu sëñ Tuubaa waaye bëgg rab bu nuy sonal déedéet dañu bëgg bokk ci ñoom gaynde rek <laughs> mooy di ko gars yi naan kuy dee ci àll na la gaynde rey nga xam ni doon rab bokk ci kenn nangu wuta doon bukki wala kañam yi nga xam ne fu ko gars yi siir yeddal loolu booy doon rab bi wallaay lu méttee kon nga xam ne sëñ Tuubaa kon li mhm. lay dëgg la ne lii ngay wax mhm. mooy Tuubaa yi mooy kon moom bi muy wër dëkk bi di seet leer gi moom seetul ay pàkk déedéet ak leer la doon wër déedéet leer ga lay wër te loolu la ko doon wëree moom leer leer goo gii nag cosaanam mooy àjjana mm-hmm. cosaanu garab ga nag mooy yàlla loolu loolu la ñu sëñ tubaa indil ci kaw suuf si boo mm-hmm. déggee sëñ tubaa naan euh, inna allazi min al ilahi xustu xaaba xaaba anil kawni mm-hmm. wa fii fustu les bienfaits que je vous ai apportés d'Allah n'existaient pas dans l'univers avant ma venue yi ma jële ci yàlla indil leen ko yéen àddina bi ma ñëwagul àddina xamu ko kumpa la mhm. dale ca aadama ba sama jamono mësta feeñ mhm. sama jamono ba keroog nuy wal bëft bi keneen ku dul man dootu ko feeñal mhm. ila ya xaadallaahu maalam yaku ni wala yakunu abadan li mumkini ila ya yaku ni wala yakunu li siwaaya bi ku ni ak ila ya xaadallaahu bi daari ni nay leen bi ci sa yaran yi daari ni sëñ Tuubaa nee na yi ma ber ba ma raw yi ma ber ba ma beru nee na yooya da caa bokk mooy indi ci àddina lu ci mëstaam mhm. <laughs> loolu nag sëñ Saliou Touba ca la la ko dëggal kay xanaa mooy bi ko ko yàlla joxee waaw mu sant ak cant ne ko mhm. alhamdu mhm. lillahi lati xat saaxa nii li watanin nafa bi ñi maaxaaqa nii wala lay xam ne kon Touba lu spécial la mbir la dëgg la maa ngi lay sant kat yow mi nga xam ne xat saaxa nii yaa ma wammatal yaa ma mhm. wammatal mhm. li wate ni réew mi ak réew sax ko tuddee am réew te xam nga wax ko ne ko maa ko wut baam mhm. ko yaa ma ko jox kon lim ko wammatal am na fu mu jógee la ba pare mu ne ko bii te ci li nga andil nafa bii maa xaaxa ni lépp lu lu doon gàllankoor ci sama mbir lii moom moo koy dindi kon dëkk buy dindi ay gàllankoor diggante jaam bi. ak boromam ak hmm. loolu du dëkku kase. dëgg la waaw ah, ba pare mu jaral Sëñ Tuubaa muy sant yàlla ca naan ko bi nga ko indee maa ngi la ci beral ak cant. dëgg la kon du ab dëkkuwaay nii rek. déedéet booba bi leer ga ndax ba mu koy wax booba amu ko fa kër gum dëkk ab àll dong la. laata Touba di doon Touba. Hmm. waaw Mm-hmm. asamaan sa ko doon tiim moo moo koy tiim mm-hmm. te tuddagul Touba mm-hmm. jant ba fi bi fiy feeñ moo fa daan feeñ te tuddagul Touba kon la ko tax a tudd Touba loola mbir la moom ma nga jóge ci yàlla te sëñ Touba nee na yàlla ñoŋaloon na ko ba benn buur musu koo moom te buur yi xam nga séddoo woon nañ Sénégal foofa moom yàlla moo fexoon ba umpale ko nee na mës ta nekk ci moomeelu kenn ba pare kenn musu faa mooy yàlla ndax kenn musu faa dëkk wallaay ndeysaan xam nga loolu dencub yàlla <laughs> dencub yàlla moo tax sëriñ bi daal di xam le ni nag kon leer goo gii la ko yàlla waxal fii. la ko yàlla defal. gis nga bi ko yàlla defalee it nag. Mm-hmm. suñ borom defaaleel ko ci ay kii man defal ko ci mbir yu ber. moo tax Sëñ Tuubaa naan yàlla. wa maskanan li dafi kulli déy wa mm-hmm. jal bi yi wax naa ko léegi waaye wàccal ilaahi maskan yi tuubaa abat mm-hmm. mis day smiha bi jaay xayri man abat leer boobu jóge ci yàlla dafa tax sëriñ bi nag di feeñal ci tuubaa yooyu maanaam nopp mosu koo daloo te loolu waras na ko mën a nangu ndax boo xamee cosaanul tuubaa ak ni mu nekkee domaine yàlla mm-hmm. nga xam ne ci amri yee la bokk alaa lahul xalqu wal amru mm-hmm. tabaarakallah rabbil alamin mm-hmm. loolu boo ko xasee xam mooy lii nga xam ne mu nga ni ci laytaay lépp lu la Sëriñ Tuubaa waxati na Tuubaa jagoo na ko danga koy xam nangu waaw da ngay xam ne war naa mën a nekk war naa mën a nekk ndax loo xam ne ci leeruk yàlla la bàyyi ko yaa ngi garab gañ ko jëmbate sax bërëb bi yàlla waajalal ñi gën ci jaam ñi mhm. nga xam ne dañ koo nangul ne ko yàlla yaay yàlla di jaamu ba mu dëkk ñoom mhm. bërëb ba mu leen di dugal bu leen bëggee bernde garab googu la leen di bernde mhm. ak meññee fi garab gi xam nga ni kon yàlla am na secret bu mu fa denc mooy leer gu rëy li sëñ li sëñ Tuubaa njëkk njëkk am mooy keroog bi mu amee dëkk bi ba war koo sanc xasida gi mu ko sànce muy Matlabul Fawzayni mhm. ca la ko yàlla njëkk a wane kiimaan kiimaan ndax xam nga ni Serigne Saliou ñu ne tamit wallaay ndeysaan wallaay wallaay sëñ Béthio siyaare ko ànd ànd ak mbooloo wallaay mu jikk ba yàgg di nettali taarixu dëkk bi keroog bi sëñ Tuubaa di sanc dëkk bii na ko fii la fii laa lay fii laa dalal yaag mbooloo mi ca mbaar mën tëdd mën la foofu mbaar mën nga xam ne foofu mhm. waaw day day day day day cosaan bi mhm. boo duggee kër sëñ Saliou am na kees gu Matlabul Fawzayni la ko andi mooy foofii ci naaj bu tàgg. Mm-hmm. di bind xasida ak Matlabul Fawzayni. Mm-hmm. keroog ba muy bind xasida ga di wax ne na aar dëkk bi na nga fi def nàngam na fi def nangam sëñ Saaliw dañoo jekk ba yàgg benn gaynde xiif di dàq mbaam. Mm-hmm. gaynde gu xiif di dàq mbaam te xam nga gaynde daa dàq daw mbaam nag. te sax li njëkk mat a xam. mooy fa gaynde dëkk. du àll bu xonqantu. xala bu xonq curru la moom. xam ne Tuubaa sax tam nekkoon boobu. Sintuwaar Sintuwaar ku ñëwee dem. waaw fitu toog foofu sax a jaar da daa rek ko man. loolu loolu rek. Mhm. nga xam ne loolu. day day lu yéeme. Mhm. Mhm. bi ko yàlla wane leeruk Tuubaa ba mu xam ni kon kat barab bii. mooy leer ga te ci barab bii itam ca la def secret ya mu daal di xam ni nag kon eh, la nga xam ni moom la yàlla def foofee ak la nga xam ni moo ca nekk loole lépp keroog bi nga xam ne yàlla war na ko Serigne Touba ba Serigne Touba daal di xam ne kon fii nag mooy Touba nga xam ne war na ko leer ga wan ko secret ya mu di ko ko ñaan ngir mu feeñalal ko ko ci àddina keroog bi nga xamee ne nag. suñ borom subhaanahu wa taala feeñalal na Serigne Touba jëmmi leeruk Touba ba feeñalal ko ko ci barab ba mu bëgg mu feeñalal ko ko ba Serigne Touba xas koo gis ba xam ni fii nag mooy barab bi foo foofee nag fa la toogoon tàmbali di bind ak cant diggam ak boromam ci jagleel gi mu ko jagleel leeruk tubaa indil ko ko ci kaw suuf loo xam ne wërtoon a am ci àddina ndax ci mul xëy bi la bokk waaye Serigne tubaa am capacité jubóog yàlla boromam ba borom andil ko ko ci xaalamu shahaada muy ci àddina nga xam ne moom moo war a doon kii moom foofu moo fa war a dëkk aku ñoñam ñu war ko dàkkantale boroom Tuubaa keroog bi nga xamee ni loola feeñ na mu di ko wër di ko wër ba gis ko ba toog foofee di fa sant yàlla ci xasida ga tudd Matlabul nii ak di ca bàkk suñ boroom ak di ca ñaan ay ñaan yoo xam ne may gu ko ko yàlla may la ba noppi mu di ko ñaan ngir jubli cee sant yàlla ndax Sëriñ Tuubaa su dee ñaan nee na rus na waa ñaan yàlla lu ma mayit ba noppi ndax kat na ngeen xam ne lu ngeen gis ma di ko ñaan loolee am naa ko ba noppi doog di ko ñaan sëriñ Saaliwu nag keroog ba sin bekk dikkee di ko siyaare si ànd ak mbooloo ma dane ko tey jii dama lay dalal nag ci mbaar mii nu tudde mbaar mat la bu foofu seen nga xam ne mooy cosaanul Touba nga xam ne faneen foo gis Touba ay tànkam moo màgg ba àgg waaye fii mooy Touba mm-hmm. keroog la ko ko sëriñ Touba de fii la toogoon di fi bind xasiid ak mat la bul foofu seen ni daane ko nag booba ba mu koy bind kiimaan gu rëy xew na fi. wallaay ndeysaan ndax nee na booba keroog la gaynde gi. di dàq mbaam mi di dàq mbaamu àll mi. waaw lu rëy nag sëñ Saliou moo xew foofu. wallaay ndeysaan gaynde goo xam ni daa jug di dàq mbaam. Mm-hmm. naaj bu tàng. Mm-hmm. nee na sëñ Saliou sëñ Tuubaa mi ngi toog wéeru ca. fa wéeru woon. Mm-hmm. di bind. nee na mbaam mi daa dawa dawa dawa dawa daw di wut laquwaay wallaay ak ak a wut wéeruwaay wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan ak a wut aaruwaay wallaay ndeysaan waaye mbaam mi xool na li ko wër àdduna wërngal képp mennum sëñ Tuubaa a gis mm-hmm. mu ñëw làq ci ginnaaw sëñ Tuubaa mm-hmm. balaa ngay jàll foofu sax damaa bëgg ñu taxaw fa tuuti nag mm-hmm. ndax gis nga sëñ Saliou mbaam yi sax xàmme nañu sëñ mbaam yi dañoo dégg sax déclaration sëñ bi waaw ndax waaw bi xam nga uh-huh. ba muy déclaré uh-huh. daa waxee ci kaddu yónente bi uh-huh. yónente bi wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil xaalamin kon saa yi wax xaalamin bépp lay waxal dëgg la sëñ Tuubaa bi mu ko doon noo moo bi muy wax ci ndigalu yónente bi mm-hmm. amarani rabbi mm-hmm. yàlla digal na ma bi an usarriha mm-hmm. ma leeralal bi an na nii himman may may may aaruwaay ndax dañu aaruwaayu nit ñi laa doon déedéet wala jinne yi ab aaruwaay la gisoo sax da koo nakiral <laughs> xam al alhimma waay dana himman nga xam ne ab aaruwaay la mooy nakira la aaruwaayu lépp mm. ak ñëpp moom daal lii problème bi ma mm. ki bëgg a ki bëgg a aaru ma jaaxal mooy ki bëggut a nga xam ne kon maam mi yëg na ni ximman moo ngi mooy wa maf saxun ma wa maf saxun a ngi nii mbaam mi yëg na ni waay moom mooy sëñ Tuubaa te moom jamono ji bëgg na fu mu làqu uh-huh. bara baraw gaynde wa malaasun fu mu wéeru lay wër fu mu wéru lay wër fa man araadal xëy na fikkilte fi bi mu gisee mba bi mu gisee sëñ bi rek daa bàyyi li mu doon def lépp ñëw làq ci ginnaaw sëñ bi gaynde ne ko li ngay dégg-dégg woote bi maa la ko gën a dégg li may fas yéene mooy doomu fa njëkk ndax man gaynde hmm. bu ma xiifee bay wër mbaam hmm. mbaam ma ñëw ba làqu ci nit hmm. su fekkoon añ laa bëgg damay gën a kontaan ndax añ buy dolli ko la waaw ah, loolu dëgg la mbaam mi kon xàmmee na ni sëñ bii du añu kenn wallaahi mu yëg ni mu yëg ni mbaam eh, eh, gaynde gi xàmmee na ni Ah, sëñ Tuubaa du añu kenn moom mhm. ndax du nit ñi mu daan gis mhm. ndax yaa ñu jàngal ni gaynde guy wër guy wër mbaam ngir bëgg koo añee te day lekk nit te day lekk nit mhm. weesu fa jekki-jekki gis mbaam ak nit añ añ bu yokku la day añ joganal reer waaye gaynde gi daane teg sëñ Saliou wee nettali de te booba sëñ Béthio moo ko siyaare si nee na riir mi ca booba buñ ko doon misaal jamono jii boo tolloon ba Mbàkke da nga koy dégg ciy sëñ Saliou ne ko diggante bii ak bii la amee woon ne ko diggante bii ak bii la amee woon am na lu mu ca dolli sax de nee na mbaam ma daa gaynde gi daa daa di ñëw ba ci sëñ Tuubaa mhm. nee na daa di taxaw daa di siggi xool sëñ bi xool mbaam bi ba yàgg daa di dëpp nee na sëñ Tuubaa ngi bind ma nga tolloon ca bayit sàngam mhm. nee na sëñ Tuubaa siggiwul xool gay xool gaynde gi gestuwul xool mbaam mi te att na leen te nee na mbind mi rafut boo demoon ci këyit gëm ko doon binde muy original ba nee na doo xam ne fii la sëñ Tuubaa attee gaynde ak mbaam bi ñëpp yuuxu sëñ Saliou daan ne loolu day mi ngi xewoon fële diggante fee fee suuf su ko weex si jàll mm-hmm. ca ca suufu fenêtre bële mm-hmm. nee na foofu la xewoon mm-hmm. nga xam ne boo sëñ sëñ Béthio daa yuuxu nag te xam nga foofu da caa dolli leneen benn xam nga gaynde jàngale na ne Sëñ Tuubaa du nit waaw gaynde moom jàngal na ñëpp ni Ahmadu du nit nit ñee ko boole ci nit ñi ba tey waaye gaynde yi génne nañ ko ci dëgg la waaye li ci garaaw mooy Sëñ Saaliw am na lu mu ci teg sax dane ko loola nag mhm. kenn fekkewu ko te nettaliwu ko kenn wallaay wallaay ndeys wallaay Sëñ Saaliw wax ko dëgg nag dane ko loola kenn fekkewu ko <laughs> te nettaliwu ko kenn Sëñ Tuubaa mosu ko nettali kenn lu ko xamal nag problème la sëñ sëñ Béthio yuuxu <laughs> ne ko Mbàkke yaa ngi xamal li yaay ko <laughs> loolu la xew loolu yëpp Touba la xewee mhm. nga xam ne Matlabul Fawzayni rek boo ubbee xasida gi Sëñ Tuubaa mhm. da koo boole ci xasida ak nga xam ne da ci joyal yàlla ak cant ak cant ci lim ko mm-hmm. defal mm-hmm. ndax kon ku xamul li li li ko si li ko yàlla defal sëñ Tuubaa moom xam na li ko yàlla defal mm-hmm. ndax day wane ni kon jëmmi Tuubaa googu day lu rëy kon day moomeelu yàlla moo tax yàlla defal ko ci nekk ak ak may Tuubaa ngay fekk maamu rahmati ndoxum yërmande muy ndox ndoxum yërmande nga xam ne keroog yàlla ci boppam moo digal sëñ Tuubaa mu gasal ko ab teen sëñ bi ñëw wane fi ñuy gas teen ba noppi gopp bu njëkk bi peel bu njëkk bi sëñ bee ko gas ba noppi mhm. daal di woo mbooloo bi seex si di ñëw ku ne di ànd ak sa mbooloo di gas keroog ba ba teen bay bënn nag di ball mi ngi fa fekk Cheikh Ibrahima Sarr Ndiagne Ibrahima Sarr Ndiagne sëñ Touba keroog daa daal di jàpp daal ne cas xalima gi borom jasaaka borom jasaaka wallaay ndeysaan daal di jël nag ak xasida nag ñaari xasida di mhm. ko jooyal yàlla mhm. dégg nga alhamdu wa shukuru alhamdu Euh, day day day sant yàlla mhm. wajaba war na mhm. alhamdulilahi wasalaatu mhm. ala allazi tafi bihi silaatu wallaay ndeysaan nga xam day day day julli ci yonent bi waaye di sant yàlla suñu borom daan ne suñu borom nag fajjarta faj fajjar euh, euh, wa fajjar naa laarda huyunan bi yàlla wax ci alxuraan keroog moom la sëñ Tuubaa jël def ko genn xasida gi wa fajjar naa laarda huyunan ubbi nañ ci kaw suuf ay bën bëni ndox yàlla dañu ubbi nañ ci kaw suuf ay bën bëni ndox sëñ Tuubaa jël wax jooji yàlla wax mhm. muy jumla jum wax ci alxuraan mhm. sëñ tubaa tëgg ci na xasida mhm. ci la naan fajjarta faagi la naan fajjarta yaa rahmaanu aynar rahmati bënn may nga nu yow yàlla bënnal nga nu yaa rahmaanu yow mi yërmande aynar rahmati nee na bëtub yërmande nga nu bënnal daan ne ko yemoo ci asqaytanaa na màndal nga nu yàlla ne ko lu ma leen màndale mu ne ko xayra miyaa in xayra miyaa in nee ngën gi ndox nga nu nàndale daane ko may yemoo ci may ñu ndox rek sax waaye dañ ñoo ndax may ndox moo xam ni ku ko naan texe mhm. day defar ab xol te da koy raxas mhm. dumma fu aada wallahi charibin minha ila afidati alladina faazu bil ila mhm. sëñ Tuubaa nee na ko maa wa rahmatihi képp ku ci naan texe te loolu képp ku ko weddi da ngaa def da ngaa da ngaa da ngaa déggul diine xamoo diine ji ndax maa u samsama a la yonent bi wax mhm. li man shariba lahu waaw samsan li maa suriba la li nee na képp ku ko naan rek mhm. aajo ja nga am ba tax nga koy naan mhm. nee na aajo jooju la lay fajal samsan dana la ko def shifa min kulli daayi la nee na day faj bépp jàngoro ku ko naan ngir ñàkki koppar nee na mu euh, ñàkki koppar dala koy fajal wallaahi képp ku ko naan ngir bëgg a wér mu def ci yow ak wér lan moo tax mooy teen ba ñoo ngi ko gas ci ndigalul yàlla sayyidatuna xaajara la la ko la la ko jibril gase mhm. ngir lan sayyidatuna xaajara mooy ñaan yàlla mhm. yàlla nangul ko ñaanam yónni jibril mu ñëw dugal laaf bi ci ci kaw suuf mhm. ndox may bal mu naan ko zam-zam loolu ci indi zam-zam maanaam te jubóogu sayyidatuna xaajara jubóog boromam rek jubóogu ni toll baa gu ko raw sëñ Tuubaa jubóog boromam dégg nga la muy wax ci Tuubaa kataballaahu tabaaraka wa taala kaatiba hazil xuruufi anna kaatiba ann ann ann ann baytillahi alharam tarfauhu almalaikatu ila touba illa touba wa fii rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maha amini maha amini wahiy kon gis nga ni Serigne Saliou boo boo boo xoolee jëmmi touba rek loola tax ñu naan sëñ touba mooy borom touba loola day lu rëy rëy rëy Serigne Saliou wallaay ndax lii nga introduire ci touba wane na ne kon sëriñ Touba wetam gii tudd borom Touba. Serigne ba moom Touba. Touba gii ak li mu làmbool ci ay secret ki mbóote ki leer. te sama borom def ko loolee kun ko moomale ne yaa ko yilif wane na yow sa maqaama ak sa daraja ci kaw suuf ne amoo morom dëgg ndax gis nga sax eh, looloo tax yu bari da koy wax ci biir Touba yoo xam ne Touba rek ko am dëgg la gën nga mu ni xanaa sëñ Saliou nga fàttali téléspectateurs yi rek mën na noo ànd ak ñun mën nañoo ànd ak ñun ci 88 628 0202. kon numéro baa ngi noonu ñu affiché ci écran bi. Mhm. jotaay bi seenu jotaay la mën ngeen a ànd ak noonu ci waxtaan wi ñoo ngi waxtaanee Serigne Touba. Mhm. waaye Serigne bi moom tubaa muy ak wet ci wetuk Serigne Touba yi muy mhm. borom tubaa introduction bi nekkoon ci lim moom nag ban ko koy dàkkantelee tax mu wane maqaama muy borom Touba lan mooy Touba. lan mooy ndax lan mooy Touba boo ko xamee xam la mu làmbool da nga xam ni ka moom tuubaa amul morom. dëgg la moo tax wet googu ci la nu nekk. wallaahi ndeysaan Alaaji Boubacar Touba googu bi ko yàlla defee noonu ba noppi moo tax Sëñ Touba di ay jagle am te leneen lu dul moom ak faneen fu moom amu ko. moom jëmmi Touba moom jëmmi Touba. dëgg la xam nga ni pàkk yi ci kaw suuf dañoo wuute. dëgg la dégg nga sax xeeti jaamu yàlla yi mindee fii suñu borom nee na ñett dana ko soppi mm-hmm. ak jaamu yàlla dara jaam dana yokkoo ci barab bi nga ko jaamoo mooy fi nga ko defee mooy fi nga ko defee dëgg la kon suuf yi tolloo woonu donte yàllaa moomandoo suuf yëpp rabbu samawati wal ardi wa ma baynahuma dëgg la yàlla mooy borom juróom-ñaari asamaan di borom juróom-ñaari suuf hmm. moom mi moomandoo mboolem pàkki suuf yi nag moo wuutalee pàkki suuf yi ngir pàkk bu ne lam ca def hmm. ak lam fa feeñal ci ay mbiram ak kiimaanam moo ko wuuteleeg beneen pàkk dëgg la lam feeñal màkkatal mukarrama feeñal ko ma madinatu munawara da koo jot te feeñal ci beneen suuf mm-hmm. looloo tax lislaam gépp ànd d'accord ci alxuraan ak addis ji wér ne bépp jaamu yàlla boo defee suufus màkk mm. baa nga defee ko suufus madinatu munawara ëppee na doole defe woon ko beneen suuf bu dul moom junni daraja mm-hmm. lu ko waral mooy pàkk yooya kiimaan ya fa yàlla feeñal ak mbir yam fa feeñal dëgg la waaye lardul muqaddasa ñëpp dégg nañ ko hmm. mooy suuf sa ni waaye sëdi selem dëgg la nga ne mooy baytil muqaddas dëgg la alxuraan ko sellalal boppam feeñal fa ay kiimaanam feeñal fa ay yonentam feeñal fa seeni secret hmm. yaa qawmi duxulul ardal muqaddasata allati hmm. kataballaahu lakum wala tartadu ala adbirikum fatanqalibu xaasiriin sayidna Muusa la dëgg la yonti yàlla Lóot yonti yàlla Ibrahim yonti yàlla Isa ba ci yonti yàlla Suleymaan ñoom ñëpp ku ci nekk say mbir ak say secret yàlla def na ko ca lardul muqaddasa dëgg la wa najaynaahu wa luutan mhm. ilal ardi allati baaraknaa fiihaa lil aalamiin dëgg la gis nga xul naa yaa naaru kuuni bardan wa salaaman alaa mhm. Ibrahim wa araadu bihi kaydan fa jaxalnaahumul axsariin mhm. te caateg wa najaynaahu kon xuugi day dellu ci ibrahima wa luutan mhm. fu mu ko jëmee ilal ardi lati mhm. baarak naa fiha baarak naa fiha waaye lil xaalami ci def barke boo xam ne min def yëpp ko mën a mën a mën a jëriñoo na ne kon suuf yi dañu wute dëgg la Serigne Touba nag na Touba gii nuy waxtaane mhm. non ak ak madinatul munawwara dëgg la dégg nga ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax wallaay wax na ci wax yu rëy yu bëri wax jëmmi madina rek day day defar ab xol day defar ab xol de wallaay ndeysaan daana wax ni waxuma la dara faatoo Madina sax ku ko def teg bokkook nag wax dëgg yàlla ku faatoo Tambacounda li Tàmbaay baax baax. wallaay baax na lool wala nga faatoo Linguère. wala Dakar wallaay wallaay ay dëkk yooyu ay dëkk yu baax la. yu tedd tedd waaye yonent bi nee na lu ngeen yéen saxaaba yi lu ngeen mën ci ñaan yàlla. Mm-hmm. buy jël seen ruu mu fekk leen Madina na ngeen ko mm-hmm. def. man mm-hmm. istataxta minkum. an yamuuta fil madinati. ñu ne ko waa lu tax mu ne jullit bi faatoo Madina. ëllëg du tolloo daraja ak jullit bi fi faatoo. wallaahi ñu ne ko lu tax mu ne parce ñi fi faatoo man bi liman maata bi xam maa leen di seere mhm. te yonent bi ku mu seere nga mucc teg wallaahi daana xool aw nit it mhm. ñu sanc ba dëkk mu ne leen ay yéen ndax yéen ngi ci biir dëkk bi mhm. ndax yéen a ngi biir Madina xool ba yàgg daan ne waaw ngeen dëkk yéen yéen a ngi ci biir dugg si ngeen dugg ci ngeen nga xam ne suuf si maam day garanti daana wax ni euh, tan fin naa sa kamaa yen fil kiiru xabasal xadiid yi nee na ni ngeen gis tëgg di ko def weñ weñ day xuur lool xam nga tëgg jàmbaar la ay jàmbaar la mhm. mais léeg-léeg nga gis ci ñoo xam dañoo mën a defar lool mhm. dañuy gis weñu xuur lool mhm. ñu defar ko ba cay ko ba muy nes nesi wallaahi yonent bi nee noonu noonu tëgg bi di def weñ bi ñu ne waaw mu ne ni ni Madina di def xol moo ko raw xol bu lëndëm xol bu lëndëm nee na képp ku fi dëkk rek jaww ji rek day tàmbalee fóot sa xol dem na ba ni masiixu dajjaal sax buy wàcc yàlla dana yónni juróom euh, maanaam quatorze malayka booba Madina juróom-ñaari bunt la mu mm-hmm. ne yàlla dana yónni quatorze malaayka ñu formé wu constitué wu en équipe de deux. Mm-hmm. mu doon juróom-ñaari équipe équipe bu nekk taxaw ci benn bunt ngir lan yàlla dafay aar dëkk bi. Mm-hmm. kon gis nga ni Madinatu Munawwara rek ay ngëneeli boppam la fa yàlla denc. muy kon foofu da nga cay xamee kon suuf yi bokkuñu. suuf su ne kiimaan ya fa yàlla fii jàll ki secret moo ko wutaleeg beneen suuf bu ko amul. moo tax léeg-léeg yàlla di waat ci suuf ak di ci barkeelu waaye Serigne Touba mii bi ko yàlla jagleelee Touba da koo defal lu kenn mësta xam hmm. te kenn dootu ko xam lu kenn mësta am te kenn dootu ko am dana ko li may njëkk def mooy daraja yi suuf yooyu yëpp amoon ak seeni barke hmm. laay boole hmm. defal la ko ci suufu Touba nga xam ne bépp xeetu jaamu yàlla bu nit jaamu yàlla ci biir tuubaa gi bu fekkee ni mënta am kàttanu boole su mag ak suufus a war a yeneen suuf su baax su ne mu takkale leen jaamoondoo yàlla ku ko mënut jaamoo ki sa suuf si mu ëpp doole ndax damay boole fayoorug màkk ak fayoorug madinati mën a war ak barke ba defaloon na ko ko ci suufu Tuubaa soo si man yàlla mhm. moo tax nga dégg mën a waccal bi ñuy daariya kalmadina barakatan wa kaxbatal masuna gis nga wal kaxbatal masuna mooy wane màkka dëgg la nga defal defal nga ma ci sama suuf si ndax defal ma gog sin Tuubaa lu def la ba noppi dëgg la ci sama suuf si ci barke mhm. day wuutu màkka di wuutu madinatul mën a war mhm. sin daaru Asan Njaay daa ñëw siyaare sin Tuubaa jóge Tuubaa sëñ Touba di waxtaan moo moom bëgg koo wax rek darajay Touba hmm. nag sëñ Daaru Assane Ndiaye nga xam ne daa baax baax a maa ngi siyaare waa Ndiaye yéen hmm. Daaru sëñ ko góor di rawe yàlla hmm. yàlla du ko def de góor gi takk rek mënta jaamu lu mu rawee sin daaru kenn jëf du ko jëf taxu koo raw ku ko rawat ci yàlla ay dogalu waaye sin daaru farlu gaag pësteef gaag sellu jaamu yàlla nee kenn du ko rab wallaahi ndeysaan moo jóge Touba ñëw di siyaare ci Serigne ne ko sin daaru Daaru Assane mu ne ko Mbàkke mu ne ko sa wa ñaata diir nga fa def hmm. mu liimal ko at yam defoon dëkku way juróom ba hmm. mu ne ko sa at yooyee jaamu yàlla yi nga fa def yëpp sama borom nangu na ko hmm. waaye maa ngi lay yëgal ne fan yi nga def Tuubaa ëpp na doole fuuf ak jaamu yàlla akuk pay dëkk at ya nga def sa dëkk baay wallaay ndeysaan loolu mooy li wér <laughs> kon loolu loolu la ko doon nga xam ne jaamu gam fa jaamu yàlla rek daraja kenn mënu koo xayma dëgg la te loolu la lislaam la moom loolu lislaam ji la lislaam ji la ndax jëf yi day day day day yokkoo ci suuf yi waaye dama sëñ Saliou Euh, léeg-léeg nga dugg ci benn boutique fekk fa butéelu ndox. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. nga fekk ko ci boutique bi. Mhm. laajte ko ñu ne la sàngam lay jar. léeg-léeg nga romb ko ci mbedd mi am waaye ju koy jaay nga laajte ko ñu ne la sàngam lay jar. maanaam masalan muy jar téeméer. waaye même butéel bi. léeg-léeg nga dugg ci bërëb boo xam ne juróomi téeméer la fay jar. waaw ah, am na barab bu mu jar téeméer. waaw am na waaye am na barab boo xam ne juróomi téeméer lañ ko fay jaayee. te même butéel la. te même butéel ndox la. te bu génnoon bërëb ba mu nekk prix ba wàññeeku. dellu fa mu nekkoon. <laughs> waaw di jëlaat téeméer. loolu nag àdduna da koy misaal. Mm-hmm. kon gis nga ni maam jëmmi Touba rek. te loolu nga wax sëñ Touba da cee wax ak yàlla. Mm-hmm. ndax dañu ko wàññi xalu ko yaarab bi. Mm-hmm. ahabba maskani wallaahi fi ardina lakka mhm. walil maayi sani mhm. sa fi firidu loolu <laughs> mhm. wallaahi wallaahi wallaahi wajxalhu yaa rabbi wallaahi wajxalhu yaa rabbi ahabba maskani tubaa gi daal def ko def ko muy dëkk bi nga gën a sopp dëkk bi nga gën a sopp waaye fii ardina lakka nag fii ardina lakka wallaahi ci ci su ci sa suufu bopp yi maanaam kon yàlla mbooleem suuf yi nga am yëpp te bëgg ko te bëgg ko ba feeñal fa say sekk rek say mbóot ñaan naa la ñaan goo def ba noppi digal ma ma ñaan ko waaw mooy defal suubaa doon suuf sañ ci gën a sopp fi ardinaa làkka mboolem ci sa suuf yi nga moomale sa bopp léegi làkka ji man mooma rey ndax mm-hmm. mënoon na ne ko rek fi ardina mm-hmm. ndax bu ne ko fii ardina sa suuf yi rek mm-hmm. ñoo xam ne yàlla moom <laughs> moomam asamaan wallaay wallaay leen a boppoo suuf yi yàlla boppoo nag moom nga ñu doon wax léegi sëñ Tuubaa ne ko mbooleem suuf yooyu yëpp lu lu fa ne rek ci barkeeg ci darajaag ci ngëneel ak ci wormaag ci lépp rek mhm. na nga def Touba gi mu gënal la ci mhm. loolu nag ñaan gu yàlla sëñ Touba ñaan yàlla nangul ko ko mhm. loolu moo waral wajhal bihi daariyana kal madina barakatan wal kahbatal masuna wal kahbatal masuna loolu waral mu man fa indi barkeb kaaba gi ak i sekkareem ak i mbóotam andi fa jëmmi leerug rasulullahi sallallahu wa man fa andi aminul wax yi muy jibril mi doon andi yëf yi ak mboolem murid saarix yaag amtiha yaag ya ca aju yëpp waaye looloo waral Serigne Touba di wax ni suuf suy ramm la. suuf suy ramm la dëgg la. waaw suuf la soo xam ni kon fa ku nekk suuf si dara la ramm. muy ndimbalul yàlla. muy ndimbalul yàlla ak ak ak ak tawfeex goo xam ni yàlla moo ko fa def. ndax xam nga suñ bi ay nettal nañ ni doon na jiite ba julli ba yàgg. Mhm. di jiite mag ñi ba yàgg dem ba sujjóot sujjóot gu mujj. Mhm. sëñ bi yàgg lool nag ci sujjóot gi. Mhm. bi mu bi mu siggee daa daa di taay rek sëlmal. daa di gestu mag ñi daa di muuñ nag. nga xam ne daa sëlma pare julli gi rek muuñ nag ba mm. ba ba waaw ba ree mm-hmm. daa ne mag ñi xanaa jaaxle ngeen jaaxle gi mooy sujjóot gu yàgg gi mm-hmm. daa ne damaa sujjóot suñu borom di déyoog man mm-hmm. xamal ne ma nag maa moom samay may te maa koy may ku ma soob mhm. ndax innal fadla bi yadillah yuutihi man yasha wallahu zul fadlul azim mhm. tey nag ma fas yéene laa bégal fas yéene laa may ci sama coobare mhm. loo may may mu ne ko may bi ma lay may nag dama la koy defal yow waaye ci say taalu bi mooy sa taalu bi bu mu mën a doon bu dëggalee ci yow fu mu mën a ba fu mu mën a faatoo tuubaa gi lay lay lay yowoo nee na daan may présenté waruwaay woo xam ni nag ku faatu ku ne rek waruwaay bi lay andi maanaam corbillard bi daal <laughs> sëñ Tuubaa nee may naa la ko rek léegi may gestu di xool ci fere yi nag ku koy war mm. ku indi gars yi sëñ damaa nee na fi may xoolee ku koy war rek sëñ siréloo bu sarna wallahi nga xam ne boobu sëñ siréloo faatu na bu yàgg yàgg yàgg mm-hmm. nee na sëñ moo xaacoo ca bàmmeel ba rek ne ko mbàkke maa koy war maa ko man waaw képp ku faatu rek ma indi tubaa ma indi sëñ tubaa nee na fa xaacug sëñ siréloo gi nag nee na moo moo moo ko defi ree nag mm-hmm. loolu da bi mu nga xam ne loolu tawfeex la xaw ma ko ko gëmul nag waaye murit yi moom gëm nañ ko a ah añoo yey gëm ko di mm-hmm. ndax sëñ tubaa moom ba dem ci xasida ga li mu njëkk def mooy ñaanal yàlla ne képp ko dëkk tubaa na nga ko jéggal mm-hmm. te na nga ko musal ci lépp lu koy doyee dil nga mm-hmm. xam ni dëkkandoom tubaa rek la njëkk a garanté moom sëriñ tubaa daana wax naan dëkk bi ku fi dëkk te di ko seetal te nekk fi li tax ma sanc ko sa yi la ñaar ajunu ko say ci sa yi la dëgg la daane say xéewal kat ajunu ko ki sa ki sa ki sa waaye sa àjjana it ajunu ko ki sa yàlla rek dëgg la ku dem tubaa nag gis ña sin tubaa créé da nga xam ni kat nit ku mën a am wërsëg te du sonn. Hmm. am na Touba moom. dëgg nit koo xam day fattu te bu ubbee rek gars yi day fekk nu xaar ñu koy xaar. Hmm. yor ay koppar yu dul jeex fas ku yéene jox. te kenn du ko audité. te kenn du ko audité. wallaay ndeysaan. ka ka amal loolu moom Touba la def sees ba. wallaay moo tax hmm. loolu it day taw féex. xam nga ni bu ñuy waxtaanee nag ngëneelu Touba. ak màggug sëriñ bi. loolu di wane ni sëñ Touba borom Touba. day wet gu rëy ci moom. gu rëy rëy ndax loo xam ne la it téléspectateurs yi ñoo ko ñaan mhm. kon faaw nu taxaw ci ngir waxtaane ko mhm. waaye ñun wóor nañu ni thème bi dafa xajul sax ci ci ak xajul ci ay jotaay xajul ci ay borom Tuubaa xajul ci ay jotaay muy nag wet goo xam ne day junj màgg sëriñ bi mhm. waaye nag day jàngal taalube bi waaw ak taalubeem diggam ak sëriñ Tuubaa ndax boo amee lu toll noonu maanaam indil la dëkk bu toll noonu wàcc fi leer bu toll noonu maanaam dalay taktal rek darajay ki nga am kon loolu moom liñ ci war a njëkk a fàttali rek kon mhm. mooy kon nun ñu ko yàlla baaxee ni ñun taalibe yi te joxe ko sax àddina jullit ñëpp ko bokk waaye mhm. rawatina ñun taalibe yi rawatina ñim baaxee nu dëkk fa dëgg la kon ba Cheikh Modou Mountakha taxawee ci sàmm war may Tuubaa ko ne war nga cee góorgóorlu dëgg la xam ne dëkk bu mat a warmaal la xam ne kenn warmaalu ko ba defal ko kenn sa bopp rek nga ko defal dëgg la na ko seen Tuubaa baaxee nga mën a dëkk ci suuf su mel noonu mhm. mu wóor na ne la bàyyi woon ak sa kàttan rek ak say pexe bopp amoo dara jee mën a dëkk ak Serigne Touba. dëgg la ci suuf su amee noonu ngëneel. Mhm. su nekkat nañ jug sàmm ay war maam defe naa loola. Mhm. ñëpp war nañoo taxaw ku ne jàpp ne sa bopp nga koy defal. looloo tax sëñ Saliou sëñ Béthio kenn ëpp ko ak cant. léegi de amul morom. ndax moom ndeysaan fii ci Madinatu Salaam la toog. Mhm. ñu am ndongo buñ ko indil. ne ko danoo bëggoon mu tërbiyewu. sëñ mooy Fallou Saw. Fallou Saw gor ak la wobe la woon. mu ngoog. ko indilee indilee Fallou Saw. ne ko ngir mu tërbiyewu fekk mu nekk ndakaaru fekk moom sëñ bi nekk ndakaaru ñu fekk fa jëwrinam ndeysaan daa daa di daa di nag daan ne ah tërbiyewu moom Touba. fekk booba jëwriñ ja nag kon bàyyi ko fi ba mu ñëw mm-hmm. ba mu ko fa bàyyee ba sin bëgg jógee ndakaaru ñëw ko kii ka gone la goo xam ni mm-hmm. bàyyee ba indi sa ginnaaw mm-hmm. wéyalal wéyale ko sëñ bi nag kon nag nañ ko yóbbu Touba. ndax tërbiye moom mënuma ko ndax tërbiye moom Serigne Saliou woo koy def moom moom Touba ndax booba fekk na Serigne Saliou woote daari tërbiye yi waaw kooka yanu doom mu indi ne sin becc yow laa bëgg nga tërbiyal ma ko waaw sin ko sin becc nag xanaa kon daa yëgul ne sin saali woote na mm-hmm. kii daal goneem gii mm. lim ci bëgg dina ko am waaw waaw ndax borom tërbiya woote na ak tërbiya mm-hmm. dimanche mm-hmm. mu yóbbul ko ko ci Serigne Saliou wax wax jàngoo dimanche jot mu yab ko ci oto wallaay ndeysaan daal di jawwali Touba siyaare Serigne Saliou bu noppi na ko gii gone nag gonek law bee Fallou saw la tudd dëgg la bi ma demee Ndakaaru Mbàkke ca sama ginnaaw la ko way juróom indi ca sama dëkk bee nga ma sanciloo muy Madina Soram ba mu dikkee nag nee na da cay sàkk ku ko tërbiyaal mhm. ba ma ñëwee sama jëwriñ ja wax ma ko ma ne ko tërbiyee day borom yow la mbakk yow rek a mën a tërbiyee moo tax ma indi ko fii ci Touba moo tax ma indi ko fii ci Touba ngir jébbal la ko ma tërbi yow mhm. suñ sali na ko hmm, sàllaw bis ni tey day yow sin becc mhm. digal naa la sa dëkk boobee di ma Madina Salaam ah. bu fa jëlee jëleeti kenn di ma ko andil fii ci Touba fii ci Touba bis ni tey def naa foo nekkati foo nekkati muy Touba muy Touba muy Touba ne ah, loolu moom Serigne Saliou. nga xam ne loolu kon day taw feex ju rëy rëy rëy ci ngay xam ne sax ndeke Touba du du suuf rek. déedéet Touba secret la. dëgg la ndax ba doon suuf rek la. Mhm. du ko def ci jëmm. Mhm. ndax néewu ko sax sa dëkk ba rek waaye mhm. yow. foo nekkati foo nekkati def naa ko muy Touba. ci ngay xam ne kon Touba daa am lu koy def Touba la koy def Touba loolu yi nag mooy kiimaan li nag mhm. te loolu ku suivre njëlbéenu waxtaan wi mhm. di nga xam ne loolu mbirum yàlla mhm. moo tax sëñ Béthio it kenn ëpp ko ak cant boobu déedéet moom mooy cantaa kon ba mag moo tax sëñ Saliou moom da ko da ko beral dëkkam ba pare tànnal ko turu dëkk bi tudde ko Madinatu Salaam loolu yi laa doon ñambaas ci li nga doon tëjee defal nag moo tax sax ñun ñii nga xam ne yàlla tew féexal nañu nu dëkki lépp loo xam ni sëriñ bi tere na ko Touba nañ ko tere suñu bopp foofa mhm. xam ni sin bi tere nañu ko mhm. lépp loo fa xam ni sin digle na ko Touba it lool nañu xam ne ndigal la ci noonu mhm. ndax jëmmi Touba la am murit di war a sàmm fu mu war a ne xanaa xamoo murit dëgg sax bu muritee fu mu nekk fu nekk da war a jàppe ak Touba am dëgg la ba la sëriñ bii bañ tubaa war ngaa xam ne yow mi nekk murit fa nga nekk bañ na ko ci yow dëgg la ndax yow da ngay taalibe Serigne Touba kon boo fexee ba sa kër di Touba hmm. lu sin bi bañ ci dëkk bi rek nga bañ ko ci kër gi sa sa sa place di Touba ah. lu sin bi bañ ci dëkk nga ko ci sa place loo yilif daal te moom ko hmm. def ko muy am Touba ci yow ndax am murid lu mu nekk hmm. loolee daa war a xam ne moomee lu ko Serigne Touba la ni mu ko moomee loolu moo wér loolu nag dana wane ak taalibe moo tax nun taalibe yi itam alaaj Boubacar bëggoon naa nga ñëw ci gën noo soññ ndax ku mel ni Serigne Touba moom Touba Serigne bu tawféexee nii defal nu tawféex te Touba ak tawféex yi ci nekk yëpp xéewal yi boo ko xoolaatee. Mm. day del si ci noonu rek. dëgg la day mel ni njëriñ lépp ñun ñii la ko sëriñ bi defal ñu di ko jariñoo. wallaay lépp lu mu ci wax ngir ñu la. te la ci gën a rëy sax mooy jëmmam jëm fa moomale boppam. Mm. ñun suñ Touba lañ mënta ñàkk mu ne fii laa def sama dëkk. dëgg la koo xam ne ba mu tegee tànkam jolof. naar ba daa way te wàlliwu la am sar aleykum bilaa dal bii di bàkkiyatan alaa laha xiiratul maanaa laha jolofun mm-hmm. ne dégg naa réew yi weex ya di yuuxu mm-hmm. lu tax nuy yuuxu ñu ne dañoo ñee suufu jolof hmm. ndax Ahmadou teg na fa tànkam te jot teg tànk ci ñoom nu ñeewee ko suuf sax ak hmm. la ñuy am am ngëneel hmm. nee nañ ko benn ngëneel bi moom ñeewee nañ ko ko ba fiiree ko ko koo xam ne tànkam fu mu ko teg suuf soosee mboolem suuf su mu ko tegul ñeewee na ko kooko jëmmam fu mu ne fi la ko dëkkal yow taalib bi bu la tawfiixalee nga am ko wóor na leen ko lépp njariñ li yow lay dellu li mu wax Tuubaa lépp ak lépp ci moom lay dellu moom mii Serigne Touba. Hmm. Serigne bi moom Touba njëriñ lépp ci noonu lay delloo kon taalibe bu am loolu. Hmm. lan moo ko war ci góorgóorlu diggam ak Serigne bi ko may loolu. xanaa góorgóorlu rek Serigne Saliou ci ak taalibe. Hmm. ndax Serigne Touba njariñam daa yaatu lool. ndax wax na ko. lawlal quraan wal xadiisu. wa manaafi'al a wa manaafi'al waraa. maa bitt fi guddi gu ngeen gis ma def ko fi rek. jariñ mbindeef yi tax ma def ko fi. wallaahi guddi yooyu nag ma fi nekk yëpp ngir jariñ mbindeef yi. njariñ li ma leen indil. daa am lu daa mooy daf cee am njariñ yooyu képp ku doon ab taalibe rek am nga ko mhm. am ci njariñ yooy képp koo xam ni bëgg nga ma rek am nga ko mhm. waaye am na ci nag njariñ lool da ngay tegu ci ak taalibe wallaay ndeysaan mooy da ngay sàmmoonteeg àqi taalibe mhm. mooy gëm sëriñ bi te kennal ko wóolu ko te doyloo ko te nekk ci ay ndigalam saa su ne te xam ne ak murit daa yombul mën ngaa doon jullit xàqante te du tax nga doon ab murit ndax eh, murit bi daraja la joo xam ni daa féete kaw ci ab jullit mhm. ak njullit bu doon école la classe ba ca féete kaw mhm. mooy classe bu mhm. moo tax classe la boo xam ni dañ la naan da ngay bëgg yàlla te jullit bi mën naa bañ a bëgg yàlla bëgg ga ca war dëgg dëgg dëgg te du ko tee doon ab jullit ndax jullit bi jë bi ñëw rek doon ab jullit tey gëm yàlla tey jëfe ndigal ab jullit la waaye yeggul nag ci màndargay jullit dëgg mooy bëgg yàlla moo tax alxuraan doo wax ni wa min annaasi man yattaxisu min duunillaahi andaadan mhm. yuxibbuunahum ka xubbillaahi mhm. waaye wallazina aamanu nag ashaddu xubban lillaahi mandargay mhm. jullit bu am kamaalul imaan mooy day bëgg yàlla bëgg yàlla googu nag la Sëñ Tuubaa woote muy muridullaahi kon xam nga ni classe bi sëñ bi indi daraja la juréy nga xam ne li nga bëgg doon it muy ak taalibe du loo xam ne yaa fuus moo la koy may du loo xam ne toog di setaan moo la koy may da ngay nangoo takku sàmmonteeg sa àqi njullit ba noppi tegu ci ak taalibe ndax ak taalibe ña ko njëkk a bëgg seen njullit daamat sëkk mhm. sëñ daam Abdourahmane Lo mhm. amul dara lu doon dolli ci ak njullitam mhm. foofu la taxaw daal di jébbalu ci sëñ Tuubaa xam nga ni sëñ Ibrahima Sarr Ndiaye bi muy jébbalu ak njullitam rafet rafet na mat na ni sëñ Mbàkke Buso bi muy jébbalu ci sëñ Tuubaa njullitam rafet na mat na waaye daa boole loolu yëpp takk ba mu dëgër daa ne tey nag ma liggéeyal sëriñ bi taxaw ci sama taalibe te kennal ko moo tax ak taalibe day sàmmoonteeg ak taalibeem mhm. mooy jamono nag toll na foo xam ni Sëñ mhm. Tuubaa daana wax ni jamono ngi ñëw comme mi dana ni dana ni gàññ mhm. téere yi ne gàññ ak taalube riir mër la tax ak taalube di riir nag mooy principe taalube kenn da ko xamul mënu koo jàngale ku dul Sëñ moo tax faaw saa su ne maanaam ñu di ci dellu te di ci di ci soññante te di ci def ay jàngat Serigne Saliou ngir tënk ko rek kon day tabaarkalla yàlla na nu yàlla dimbali ba téyel nu sunug taalube amiin yaa rabbal aalamiin te saxalal nu sunug taalube ki sëriñ tubaa te rafetalal nu ko mhm. mboolem point boo xam ne sëñ bi dana ko laal di wax ne mandarga la ci bi rek mhm. dimbali nu ba point boobee nu jëmmal ko mhm. ci diggante bëgg ko ak sob ko muy asir ko fi maa bari seexi abat waa ci diggante fonk ay ndigalam saa yorotee hmm. mu samam ti sal amri ay su warat dëgg la waa ci diggante bañ koo gaaral ci dara hmm. nu mu defee ak nu mu waxee rek loola doy hmm. watar ku la xitala walaw bi baatina alay fi ma xadaraw waaye ñaan ko it mu dimbali ba nu denc ak tànn bàyyee kook sunu tànn te lum nu tànnal doy nu wallaay wasal wa ma huwa salabul ixtiyaari li xut ne sànnihi bila inkaari dimbali nu ba nu sax ci di ko liggéeyal tuuba li abdin muridin saadiqin lahum nu lépp aw haddiyaat nanu sax ci di ko addi yàlla tam dinu ko nangul mm-hmm. na loolu rek lañ bëgg doon mooy ay taalibe yu dëggal seenuk taalibe mm-hmm. tey ñaan ñu doon taalibe yu nangul seenuk taalibe amiin yaa rabbal alamin ndax kat sëriñ bu mat ab sëriñ gën ñëpp ku ko mm-hmm. am soo mënta doon taalibe bi gën ñëpp it war ngaa mën a doon taalibe bu rafetuk taalibe dëgg la kon yal nañu Sëriñ Tuubaa téyel boppam amiin yaa rabbi kon mel na ne tey jotaay bi kat mhm. loolu la tànnoon mhm. muy spécial Serigne Touba waaye wetam gii nuy tudde borom Touba wallaay kon téléspectateurs yi ko tànnoon nag tem baa ngi noonu tem baa ngi noonu yi dañ ciy indi li nga xam ne xaj na ci jotaay bi mhm. li nga xam ne manees na ko indi ci jotaay bi waaye ak li nga xam ne manees na koo wax ci kaw teleel ñëpp mën koo dégg ndax kat am na waxtaan woowu des koy wax ak koo waaye di su ko wax ak ñoo mm-hmm. am loolu ñoo ñoo ko moom waaye koo moomu ko kon nag lii mooy li nga xam ne moom mënees na ko ci génne ci temps bi waaye mooy li nga xam ne nag borom Tuubaa mënees na ko cee fësa lépp loo xam ne ñëpp mënees na ko dégg mm-hmm. kon nag bu ko defee ñu teg foofu sunu baaraam joxante waa dig daja ci alxamis bii di ñëw mm-hmm. ci guddi ma ci waxtu wi fii ci Leeral TV insha allahu taala ci jotaayi xam-xam ak taalibe kon nu jox la nga joxe kàddu yu mujj yi ah Serigne Saliou kon day ñu sant rek bu baax a baax tey ñaanal réew mi jàmm di ñaanal ñëpp jàmm wallaay ndeysaan waaw waaw di wax wa axiru daxwaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu avec les plus Ay reportage yu yéeme. dama ne télé bi ngeen doon xaar tàkk na de leeral TV 100 pour cent xibaar maa la ko wax te nag télé bi fépp la yegg ci Sénégal de décodeur TNT ba nag ñu ngi canal 33. leeral ay xibaar yu gaaw te woo